waaye moom sëñ Mourou Moustapha Falilou di ko xam ne nii sunu wëllëre la euh, wax dëgg yàlla ñu di ko ñaanal yàlla wéral baat bi yokk ko kattan may ko ba mu yeggalee ndax ku ne xam na ne liggéey na empreinte am ci xasida Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yi liggéey bu yaatu boo xam ne nii euh, yàgg na fu na ci réew euh, ñuy am ci moom mbégte ndax ngaay la jóge ñëw àndandoom ñun li nga xam ne ni mooy plateau bi muy luñ yàgg a bëgg nag wax dëgg yàlla waaye tey la ko suñu borom dogal ñu di ko ñaanal bu baax tànk yi mu indi ba ni muy delloo lépp mu doon aw yiw ñi ngi feggoo itam ak sëriñ Chouaïbou bu mbub sëriñ Chouaïbou bu nag euh, ku ne xam na moom itam taxawaayam ci xasida yi euh, koo xam ne nii jënn jëmm la joo xam ne wax naa ko bari ki démb euh, Touba ci ne lu bari tegal nañ ko ko ngir tàqale ko lii muy def waaye mu ne man féete naa ak sëriñ Ba Xaadimu Rasuul ñu di ko ñaanal bu baax moom tamit yàlla sàmm ko may ko mu yeggale li mu bëgg a liggéey ci xasida yi kàddoom képp ku ko dégg rek dana am fu mu la yóbbu dana am fu la yéegi te loolu dara waralu ko bëggam sëñ tubaab mooy feeñ ci ni muy jànge ñu am mbégte bu baax a baax ci dalal ko waaye mi ngi feggu ak Baye Cheikh Baye Cheikh euh, waxuma sax ni mu yëngoo ci xaside yi waaye kéem tànn ci sëriñ bi ndax bu njëkk ba daawuñu gis sax âge bi mu am ak ni mu toll di yëngoo yitteem yépp nekk ci xaside yi day mel ni booba lu baax sax bala ko nit a roy ba di ko donn faw nga dem ba am yenn at yi door a mën a jublu ci yëngu ci jéem a euh, wut lu baax waaye ku ko xam-xam ne taxawaayam itam euh, taxawaay bu am solo la ci xaside yi ñu di ko ñaanal moom itam yàlla may ko mu yeggale euh, lam bëgg a liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci xaside yi man bi ma koy woo téléphone di woo soxna Xadi xaw ma woon ne sax ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ngaay kon tey waa ngaay tubaarkàlla gàcce ngalaama loolu wane na rek ne dëkk boo gis rek sëñ Touba di fa jiib rek xamal ne mag ñi dañ fa lu yaatu ba mu ma kurub Euh, kon nag noo ngi leen di naan ndokkeel ñuy dalal keneen koo xam ne suñu xarit la di suñu wudari ma fonk lool ndax euh, léegi rek am na jàngkat bu mag bu ma wax ne euh, li ko yàlla dogal mu mën a jàng noonu la yàlla dafay itam ci moom ab yar ak worma ak baax ak yaatu goo xam ne ni mi ngi ci moom muy Serigne Baye Ibra Samb bërki dem dafa ñëw sama kër jàng njàng moom dama leen ni kii dafa mën a jàng waaye mën a jàng gi dal gi ak yar bi da ko da ko da ko da ko da ko tenir kon nag ñu ngi koy ñaanal moom itam yàlla may ko mu yeggale ku ko tudd rek sa xel dina dem ci sëñ Ousmane Mbaye eh, ku ne xam na itam moom it taxawaay bu am solo bi nga xam def na ko ci xaside yi maa ngi nuyu nag sama collègue yi am ci plateau bi yëpp eh, sëñ Alaaji Sarr maa ngi koy gis léegi mi nga ànd ak eh, soxna Xadi moom it muy ku mën a jàng nag bakal la yar am yar lool dal moom tamit di ku baax waaw ku mën a jàng la yow moom tubaarkàlla damay waajalal sa plateau spécial ñu ngi lay ziare baax sëñ Alaaji soxna Jaal tubaarkàlla euh, moom it ku gis soxna xadi rek seen ko ci wetam démb ba minuit seen ñetti vidéo yi laa topp di ko ngir mën am question yu ma laaj waaye gis naa ne fa soxna xadi yëkkatee rek bu jaaree ci suuf yëf yi tubaarkàlla da lay yóbbu fa kenn naan ñu ngi koy ziar moom tamit di ko ñaanal sama xaritang na li sëñ Abdou Wadd murid saaneex na ko jaaree bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko taw feex toftal ci sëñ Mamadou Thioune mi nga xam ne ni euh, mooy secrétaire généralu euh, groupe kenn du sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu ngi leen di nuyu waa kenn du sëriñ yëpp suñ ko tegee ci loxoom ak euh, soxna yaa Awa Sow ñoom sax bis bi tey dañ ci amoon pas-pasub jàpp ci bu baax a baax a baax waaye mën na leen tubaarkàlla euh, yoon yemul ci benn ñu ngi leen ciy gërëm di ci gërëm soxna su gaawaan Jóob ak mboolem ñi nga xam ne ñu seen ginnaaw yëpp likke li nga xam ne mooy soppe yi ñu ngi leen di ñaan yàlla defal leen tawféex tey nag bala ñëw tàmbali li nga xam ne ni mooy euh, plateau bi damay njëkk rek ak sponsor yi nga xam ne nii ba weeru koor bi teroo ba léegi ñooy àndandoog Touba TV ci liggéey bi li ci jaajëfal nag direction commerciale tàmbalee ko ci soxna maam jaara Bousso mi nga xam ne ni euh, barakala euh, moom la alaaji Mbàkke yu dénk direction commerciale bu Touba TV euh, mook soxna maam mi du ci liggéey liggéey bu am solo waaye mën a jëflante ak ak clients yi ba ñuy am li nga xam ne ni mooy satisfaction bu am solo ci liggéey bi gis ngeen sama gan ñi ma am dama leen ni tey moom faaw sponsor yi waxtaan ak sama gan ñi moo waral gis ngeen kenn ku ci nekk jox nañ la addiye joo xam ne nii li nag ju ñuy tàmbalee émission bi la moo tax sëñ sëñ Ibrahima damay bëgg a jege li nga xam ne nii mooy euh, taabal bi euh, sëñ Ibrahima Faye xam naa mi nga naan nañ ma jox ci tàngal ji waaye doo ci macc euh, sponsor yi bi ci njëkk mooy tàngal bégee tàngal bégee di tàngal boo xam ne ni mbokkum taalibee koy defar moom tamit di liggéey liggéey bu am solo àndandoog Touba TV li nga xam ne nii mooy weeru koor bi yëpp wéttali Euh, tàngal bi nag xam ngeen ne du benn rek waaye ay façons la xam nga yenn saa yi euh, moo tax Mansour Gueye yenn saa yi ñu bi di nelaw boo leen dóoree benn tàngal ñu yeewu euh, muy lu am solo ñoom it lu ngeen gisee ñu di ko wax dañu bëgg mbokki taalibe yi ñoom di jàpp seeni ndax wax dëgg loolu moo waral ñuy jàpp ci li nga xam ne ni mooy liggéey bi te it mooy yokk ñoom it seen pas-pas ñu teg li nga xam ne mooy sunu kafe sunu kafe xam ngeen ne café la guñu saaf ba mu sell boole ko ak yi mu war a àndal ndax ku ne xam ne ne café baaxoo na ànd ak jarak yu mel noonu lépp lañ ci eh, def waaye nag non seulement dafa amaat yeneen yu mu àndal mooy ku nekk da ngay am sa bureau euh, bëgg machine kafe boo xam da nga koy def ci courant bi ngir mu segg la kafe gu gaaw te sell euh, boole waale nañ ko ci ngir mën cee Euh, sóoraale ñi nga xam ne ñoo am euh, bureau muy sunu kafe euh, di sunu moomeel loo xam ne nag ñëpp ci war a jàpp ndax ñoom tamit seen taxawaay am na solo lool ci Touba TV waaye sunu sponsor bu mag bii di Pëns Pëns xam ngeen ne dafay benn parfum boo xam ne nii màggalu Touba gàmm lu ci mën a doon rek day wax ne Touba TV moom man partant la bokk naa muy ñoo xam ne nii am na Coca-Cola am na Sprite. am na Fanta Fanta ananas euh, tubaarkàlla euh, muy lu am solo loo xam ne ni mën naa reesalu ñam ñoomit ñu di leen bu baax ci seen taxawaay ndax kenn euh, demul ñu des waaye la fraise la fraise muy benn boisson boo xam ne nii yemul rek ci boisson dañuy defar spaghetti di defar macaroni di defar mayonnaise ak ketchup gis nga bidel bi am na yeneen yu ndaw yeneen gone yu muy àndal Euh, soo demee Dubaï dañuy wax ne euh, dem naa ba découvrir fa nga xam ne mooy seen usine bi nga xam ne nii fa la ñuy defaree euh, ki nga xam ne moo ko ubbi di ndaw loo xam ne xel comme la jàngi alxuraan ba yeggal dem Dubaï jàngi xam-xam am fa licence ubbi fa entreprise ñëwaat ci réew mi investir muy sëñ Maxtaar Sey moom it muy koo xam ne nii depuis ba mu jàppanteeg Touba TV ba léegi ay la yoween saa su nekk day wax ne maag Touba TV contrat la boo xam ne du dagg ñu di ko gëm di gërëm sëñ Madiaw mi nga xam ne moo ko représenté fii di directeur général bi euh, moom it bi jàpp bu baax a baax ci euh, liggéey bi euh, la fraise di boisson boo xam ne moom it am na parfum yu wuute yu bari bari yoo xam ne ni ñu ngi ci biir ñuy leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay bi taxaw àndandoog Touba TV gis nga nii am na itam vermicelle macaroni baa ngi ni xam naa si maa ngi naan macaroni bi ci laa bëgg a laylatul xadare waaye neex na laylatul xadare moom it ñu di leen gërëm bu baax a baax ci seen taxawaay bu am solo waaye ndoxu sewo CO di ndox mu sell moo xam ne moom it gis ngeen ko nii euh, waxtu wu nekk dafay ànd ak euh, Touba TV yàgg naa ànd ak nag euh, télévision bi ci programme bu mu mën a doon moo xam spécial yi def moo xam korité moo xam màggal moo xam gàmm danañ ndox mu sell te set waaye méngoo jamono ba noppi yomb nag neex jëfandikoo bu njëkk ba forum ci mbedd da ngay gis atumaan yorum mbuus léegi yooyu xewwi na ndax euh, tubaarkàlla civilisé wul te it li muy yëkkalu rek waar waaye léegi da am butéel bu set bu sell ndox moo xam ne di nga xam ne qualité yi mu war a àndal yëpp dajale ci biir euh, kon euh, ñu di leen gërëm bu baax a baax ñoom waa siwu ci tour direction commerciale bépp nag gërëm leen bu baax a baax ndax woote ñu wuy si la yombul waaye ñoom waxtu wu ñu demee rek di leen wax li nga xam mooy jëm ci liggéey bi dañuy sawar lool ci Touba TV ngir fas yéene àndandoo ndax ay murit lañ ay taalibe waaye itam dañu wax ne kuy wàll yaan sa kër tëggul kon li ñuy njëkk a def mooy ñëw Touba TV ba noppi doo dem euh, sunu sponsor bu mag bi gis ngeen noo tax euh, la Fresse may na boisson ak euh, pëls ak sewo ak tàngal bége ñoom kenn ku ci nekk joxe nga sa barkeelu muy soxna Xadi muy Baye Cheikh muy sëñ Chouin bu muy sëñ Baye Ibra Samb am na sax ay sachet café yu ciy ànd waaw sunu café da ciy ànd kenn ku ci nekk di nga ci yóbbaale li nga xam ne nii mooy sa mooy sa mooy sa addiya Euh, booleeg nag euh, sunu sponsor bu mag bii di euh, Promobile Promobile xam ngeen ne dañuy wax ne sunu moomeel la bi nga xamee ne télévision bi ubbi na tàmbali li nga xam ne mooy weeru koor Promobile dafa wax ne dafay ànd ak Touba TV li nga xam ne mooy weeru koor bi gis ngeen léegi gaaw bi yëpp dañ leen koy may muy plateau spécial yoo xam ne dañ koy defee foofee ca direction ba di ci gërëm directeur yi ak ki nga xam ne ni mooy moo ko initié di Alaaji Mbàkke yu fay di wax ne moom Euh, lu ñuy wax ñu di ko liggéey muy participer la sëñ tubaa waxoon ni al ilmu wal amalu jawharaani waaye li xayriya daareeni yajlubaani wal temps la man na bi anna ilman wa amal huma wasilata saadati ajal foofu la alaaj ba teg tànkam ubbi Touba TV ubbi promobile Europe ubbi promobilière ak yeneen ak yeneen ba tey defu ko rek lu dul mooy sëñ tubaab moo ñu jàngal moo ñu digal jàng ak liggéey ak jaamu yàlla euh, ci loolu la nekk ba tax mu indi 75 ñu tuddee ko sunu moomeel moom itam promobile may na sunu gan yi kenn ku ci nekk puce boo xam ne ni yaay xool numéro bi nga bëgg mu tàmbalee ko waaye itam day ànd ak crédit boo xam ne ni bu takku ci biir li nga xam ne ni mooy carte woowu euh, ñi ngi ciy gërëm bu baax a baax euh, sëñ Makhtar ak euh, gujaay bi ak petit mi nga xam ne ni euh, luñ ko wax mu jëm ci télévision bi rek day wax ne bokk nañ ñun promo bi ñu ci biir mbàkki alaaji mbàkki yu dégg ko li nga xam ne mooy communication bi mu di ko liggéey nag liggéey bu am solo gis nga àjjuma yi ak gaaw yi ni ñuy joxe ay ndogu euh, ci biir ndakaaru ak Sénégal gépp ñu di ko gërëm bu baax baax kon may na suñu invité yi ay puces yoo xam ne nii bu ñuy dem danañ ko mën a yóbbaale ak bi nga xam moom lay àndal incha allah danañ joxe li nga xam mooy numéro bi ñuy àndee ak euh, moom euh, waaye séddalewaale na ay fulaar yoo xam ne ni dakoo joxe ngir euh, sunu gan ñi kenn ku ci nekk mën cee mën a mën a muuroo benn loolu nag addiya la joo xam ne ni promobile moo ko defal sunu gan ñu sell ñu ñu am kon mbokk yi téléspectateurs yi su ngeen gisee ñu di leen wax nii mu ngi noonu soxna Jaara ku bëgg nag bokk ci li nga xam ne nii mooy commercialu Touba TV ku mën a participer bokk ci liggéey bi Euh, mën nga woote ci cent 77 220 25 00 77 220 25 00 mooy numéro responsable commercial yi nga xam ne ni ñoo nekk fii ci euh, télévision bi ñu di ko gërëm di gërëm soxna maam Marème euh, bu baax a baax soxna maam Diarra tey yéenam sax moo nekkoon ñëw ànd ak ñun plateau bi waaye dafay wax ne bu ñu wen fa teewale ak mel ni ñun ñëpp teew nañ kon sëñ Atoumane tey mooy responsable commercial bi mi ngi pare café gi sax bu tàng jër te woyof te neex lool méngoog plateau bi moom la fas yéene yëkkati Euh, kon nañu def mooy tàmbali li nga xam ne plateau bi jaajëfalaat téléspectateurs yi euh, santaat leen ci taxawaay bu am solo bi ñu am ñu ngi ñu ngi santaat bu baax soxna Marie Guèye xam ne moom itam euh, taxawaayam ci liggéey bi muy gestion bi ak li nga xam ne commercial am na solo lool ñu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla gis ngeen noonu publicité publicité yi nekk ci suufu baaru télévision bi kon incha allah ci kanam tuuti bu xaajee ñu tàmbali li nga xam ne ni mooy publicité yi jàllale ko ak téléspectateur yépp di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal Euh, ni may def mooy damay tàmbali ak euh, émission bi euh, xasida tey nag dama waxoon ne guddi spécial xasida la ma bëggoon sama ñeenti gan ñi ñu séq sëñ Abdoulaye Diop Bichri ndax xasida guñ fi tey danañ ko leeral moo tax dama bëggoon nag waaye comme nii la demee tey dañ koy def animation boo xam ne nii tubaarkàlla ku leen déglu xam ne ñii ñu mat a taxaw lañ su ngeen gisee ñu invité leen dañ leen a war a neexal di leen fay di leen dabu ji ngir dalal leen parce que télévision sëñ Touba ñoo war a wane ñii ñeneen duñ leen wane ndax li ngeen di produire ñun ñoo ko soxla te it kenn ku ci nekk war na leen a jàppale taxawu leen rawatina ku mel ni sëriñ Soxna Xadi Njaay ak ku mel ni sëriñ Chouin bu mii nga xam ne tey bari na fi nekk ñoo xam ne nii te ma xam seen biir ne ñoom sëñ Tuubaa la ñuy déglu moom la ñuy xaar duñ dabu ji dara fekkiwuñ dara utiwuñ dara demuñu ngir dabu ji kenn soxlu dara ndax bu leen neexoon télévision boo jàpp seen leen fa ndax li ñëpp man suñ sëñ Tuubaa jagleel na leen ko waaye dañu toog rek xaar sëriñ bi kon nag maa ngi ñaan mbokki taalibe yi ñuy seetaan ci kanam tuuti naa joxe numéro yi ñu taxawu leen nag laa eh, jàpp leen te jàppale leen te sëñ Tuubaa rek tax eh, loolu jàpp naa ne sponsor yi ñoom tàmbali nañ ci Baye Cheikh damay tàmbali ak yow ginnaaw ba mu amee mbégte ci sa eh, teewaay fan si bari na loolu ndax ñu bari nañ wax ne nuyul ma Baye Cheikh siyaaral ma ko ndax tubaarkàlla man fan sa ko da jël micro bi ma bàyyi la damay bëgg nag ku ma ci jox balaa ngay balaa ngay tàmbali Euh, xasida nga may tàmbali li kon euh, sëñ Alaaji ñu jottalil ma ko micro boobu bu fekkee foofu micro nekk fi jottalil ma ko euh, benn micro waaw mi ngi nii ci soxna di waaw kon nañ ma ko joxal micro bi Baye Cheikh baa nga naan asalaamaaleykum da mën nga tàmbali ma ak xasida yaay xool na gu la neex nga ubbil ma ko jataay ba noppi door a nuyu téléspectateurs yi lay seetaan وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا ربنا إن الورى تدرام لأوليائك من ليصام يا ربنا إن الورى تدرام لأوليائك من ليصام إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا وجهلنا الفوامن يا خدير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 salaamaaleykum mbokk jullit mbokk taalibe yi maa ngi li di nuyu baax a baax di leen di jox ku nekk sa wàccuwaay di nuyu maam Mbacke yu fay di ko jox wàccuwaayam baax a baax te xam ne moom moom dàmbaari Serigne Touba la lim liggéey ci Dakar mhm. euh, ndigali Serigne Mountakhal Bassir mhm. di ñaan si Mountakhal Bassir mu yàgg fi lool ànd ko wér mhm. ñu ngi ñaan mbooloo mi yëpp daal ñu fi lool buñ sañoon daal ku ne. fekk ko fi koor gi fekk ko fi ay ati at. Mhm. Mhm. jërëjëf sëñ Baye Cheikh ñun ñu ngi lay delloo nuyu bu baax baax euh, sëñ Sonia bu maa ngi lay nuyu euh, di la dalal di am mbégte euh, xaw ma gan xas da nga may waaye nuyool ma xas dama nekk doon nuyu téléspectateur yi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيسها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم allahuma bi aq wajhillahi taala karim salli wa sallim wa barik ala sayidina mawlana muhammadin lilfati lima uxliq walxatim lama saaq nasir aq bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqim wa ala ali qadri bismillahi arrahmani arrahim malaktu bi rabbil muxjilal mawji wal yameew bi madhi lazi ansa عسى الفلك الخماو ملكت برب الموخ جل الموج واليماو بمده الذي أنسى عسى الفلك كالغماو مرامي وعجاتي لربي توجهات بحمد وشكر ولي كائن به سماع مرام وجهاتي لربي توجهات bihamdin wa sukurin wa wali kaay na bi sugmaaw muradiya kawniya دربي خديم أمام أخاتبه بسوق روالهم بسعاسماو مرادي كوني عاب دربي خدما من أخاتبه بسوق روى الحب ساسماو مراد كونها دربي خدم من أخاتبه بسكر والحب سأسمع مساياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكن جلت عن الشهر والأسماع مساياك يا كلي لدى الكل قد جلات ولكنها جلات عني سير والنسماء مخامات خير الخال خير ربي muxayyabatun fal taxra an suratan najmaaw maxamaatu xayrul xaal xi an xayra biyaam muxayyabatun fal taxra an suratan najmaaw muhammadu al mutaar رلا خلق ميلا عليه السلام من له الأمر كلما محمد المعروف فماء ومانع وبليس منصوصنا مسون هن الوسماء محمد المخروف فماء ومانع وبليس مغصوصنا مسون هن الوسماء مجيب مجاب الأبرار تدنخ لكل داو مبي ومبوسنا إلى الهرب والوجماع مجيب مجاب مار مبتدا مخلق لداو مبين ومبوسنا إلى الغرب والجماع مديه جلاهنا دجنا مهللون مليه ومغصومنا من الناس والمغماء مدينة المنمار تجن منة لدناو جري ومن جنا من سنوب ومن سلماو مدينة المنمار تجن منة لدناو جري ومن جن من سنوب ومن سلماو مدنة علم المر تجملة لنا جري ومنجي من صنوب ومن سلم ما لو أني بالنبي كل فاسد وست بها عبدا خديما بلا خم من العير بالأرسل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 di ci teg mboolum kilifa yëpp nag. ndeysaan di leen ñaanal ak yàgg te wér. Mm-hmm. ci ci ci dara ji sëñ Tuubaa xasida yi. amiin di saar bu baax waaye di jiital ci ñaar di nuyoo beeg saar bi. soxna Khady njaay mi nga xamante ne moom laa bokkal plateau. te yàlla daf ñu bokk aw melo. Mm-hmm. te li ñu dajee ci jàngi sax bareetul ndax kenn ku nekk. ba yaatu kenn ku nekk yaa ngi ci waaru mm-hmm. rek di bay. Euh, di ko siyaar di ko ñaanal sëriñ bi defal ko tawfeex di ko ñaanal fi mu bëgg a mm-hmm. yegg mm-hmm. ak li mu bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa mm-hmm. lépp saa borom defal ko ci lu koy njortal te musal ko ci saytaane ak kenn ak pàkk ku ci teg bàyyi seex mi nga xam ne kéemaanuk sëñ Tuubaa comme ni ko sëñ am waxee man bi muy jàng tuuti sax mu yóbbu ma ndax euh, lee ma yàgg ci ci jamono ji fekk naa lu bari waaye ku mel ni moom maa ngi koy maa maa ngi doog a fekke mu toll nii mu toll lu jékkati xasida loolu nag ñaan ci dara jëlee sëñ Tuubaa ndax noonu xam nañ njàng mi bu baax loolu wax xam nañ ko noonu ñaan ci baaxu sëriñ bi. Mhm. sëñ bi taxaw ko teete ko yiir ko ak yiir ko ba lépp di kaaraangeem nag. Mhm. ci góos ak duwaat ak ci fépp. Mhm. ba lim bëgg a liggéeyal sëriñ bi lépp mu mën ko liggéey. noonu ñaan yàlla do nag. mag mu tekki moom xasida te sans borom musal ko ceeb ndax. ñun ñuy ba ñuy toll ni moom. na ñu ngi woon ci leneen am yeneen yu ñu daan def yoo xamante ni dëppoo ak yëf yi. comme moom mel na nii nag ba pare di diggal sëñ bi nag mhm. loolu loolu loolu bu ko yàlla mësala cat suñu borom mën na koo dimbali mhm. kon yàlla na ko yàlla cat mhm. euh, di am mbégte si ñaame dun ndeysaan bu baax nag ci jëmm ji nga boole plateau muy bayam la dëgg la noo bokk dëkk li ko li li li moom ak yëgam yëpp ci man ci man mii la war maa ko maa ko war a yëkkati ndeysaan ndax yàlla xam na ci ci xas di aw tur ak cër boo xamante ne bii am na noo xam ne boo ne xasee mag ci koo bokkal ko ci rek war a mën yaa war a mën a fexe ba mu yëkkatiku léppam yow lay war mm-hmm. kon nag moom léppam man la war ndeysaan maa ngi ñaan ci baaxuk sëriñ bi mm-hmm. suñu borom dimbali ko moom mi taxaw mm-hmm. ci dara gisim tax di la siyaar mi yow jërëjëf baax nga maa ngi ñaan ci barka xasa yi saa borom def la jàmm amiin amiin boobu jërëjëf jëf jërëjëf sëñ soé bu euh, tubaarkàlla euh, neex na daal tubaarkàlla neex na euh, sëñ moom mosoon na sukkay na dimme maa ngi ci sanc ba Louga bokk ci kuréel kenn sëriñ bi yore lépp lu jëm ci organisation bi mu ndeysaan mi ngi yónnee moom itam bataaxal di bëgg lool ci jataay bi ñu ngi koy ziare soxna ñaaña it maa ngi gis message am euh, maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak euh, téléspectateurs yi man daal mës na maa dégg foo yi ni boo jàng boo xam ni ñeenti bayit laa ci déglu damaa coupé son ba nangootuma koo déglu sama àddina ba léegi ak si karsi moom du ma ko déglu kooku moom du ma ko sax kafaale moom kooku ma bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs euh, ay bayit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 وهجة على مخالف الخداء واجة لمن بدوف ارتدى وهجة على مخالف الخداء وحجة لمن بلوم القداوة وحجة على مخالف الخداع ومطلب التحضير ومحربا من تحت الرجيم wa matrakan li subul tibaaye ndeysaan wa matrakan li subul tidaaye wa maskanan li jalbi kulli xayre wa maskanan li dafxi kulli dayre wa jaaba li fadi xayri l xaybi وسببا لضفح دير لخيره وارده جل الارض رسل وهما ورحمة وساهة كل هوى يا دافي عن الأسواي والأكدار بالمصطفى إفعى كل سوء داري والله يا دافي عن الأسواي والأقدار بالمستوى إدعى كل سوء عن داري وقد ما بنوا بما عرفوا ناي الذي بفضلك احتلى وفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجهل ساعة الانتلاك نور ورحمة بلا انتهاء ورزقه اجحل أن يبع على في العسر واليسر على التوالي وليجد فيه بعلم ينفع ولقة من سيتي بقلبي يغسو وليجد فيه بعلم ينفع ورفقة من سيتي بقلبي يغسو وليجد فيه بعلم ينفع ورزقة صيت بقلب يقصه ولي يفيد وأن يسموه مهل قناة بناس تصبو وزوجا زالي هذا الدين ألا تقاهى واليوم واهيا كذب جلبا على يوم جنة أحلي يا زمد وذير ذراع بغادر زغالا باري باري باري الدار وما جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجنا عن الفتون وتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجنا عن الفتون وتدخل الجميع في مكنون غيبك لي سربا واكلاها وجعل عريمنا عريما حامنا وكن بيصيك كفيلا ضامنا وجعل عريمنا عريمنا منا وكن بيصيك كفيلا ضامنا وجعل عريمنا عريما حامنا وكن بيصيك كفيلا ضامنا وجعل واجلب لها خيرا واجلب لها خيرا واجلب لها خيرا من الجهاد السد وحق فيها من الهفات واجلب لها خيرا من الجهاد أصد وافي عن الأبد حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أهو loolu yallaahu yaa waafi siyaasa al amri yaa faayiqa al xalqi maa bil qaari nafsi wa diini summa li wal walad wa maskani laka wadiihatu nabat wa hakaza dunyaaya wa uxraaya ففيما عن زفير سيباي سرسال وصف أصاب النار عن جملة من ليتعلق من أمنع زمن وجملة الإقوان من أقارب في الطين أو في الدين ولا الجانب فليكن اسم وضعبا يا سمت تولني ولا تكلني لأهر وارحم جميع وارحم جميع وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا ولم جميع المذنبين ابدا وسليا وسلما سرمدا ولم جميع المذنبين ابدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسند لك وليبقص القتام لك والتصف صلاة للصحابة الحالي وابل الإجابة ولجد بكل ما طلبت بسل قصيدة كما التمست سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة برمتبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wax Cheikhul ñëpp day siyaare ñëpp tey bal aaq ñëpp te di ko ba ñëpp mm-hmm. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké di ñaan ci barke Cheikh Ahmadou Khadim Mbacké xasida gi yàlla ko fi yàggal mm-hmm. mu ànd ko wér di nuyoo bokki taalibe yëpp di nuyu alaaji Mbacké yu fay mi nga xam ne liggéeyal Serigne Touba rek moo ko tax a jóg mm-hmm. waaye di la siyaare yow sëriñ Amidou Diop. jërëjëf mi nga xam ne yow danoo bokk sëriñ bi. wallaay dëgg la ah yàgg nga xamee. wallaay ndeysaan te sunu ak lépp rafet te lépp tàmbalee ci sëriñ bi. yem ci sëriñ bi. Mhm. noonu laay nuyoo soxna su tedd su baax soosu. soxna Kumba Kumba Mbàkke nga xam ne moom yàlla dafa dogal muy sama xarit. wallaay ma ñaan ci barke Cheikh Khadim yàlla bu ko kenn ëppale ci barke sëriñ Mandumbe. amiin amiin. Ah di siyaare sëriñ sooy bu mbuum nag man yàlla dafa dogal danoo bokk aw melo ba népp ma di la bëggee ngir sëñ Tuubaa ñun nag danoo mën a solidarité danoo mën a sot loolu yàlla dogal su diggante ñun ñii bokk aw melo euh, rawatina ñu bokk sëriñ bi di bokk bokk luy dund maa ngi lay ñaanal ci barkeb xasida ak Matlabul Fawzayni sëñ Tuubaa tooñ la yëkkati la ba foo bëgg a yegg sëñ Tuubaa yegg la dafa man dama lay bëggee sama xarit nga ku la ku bëgg laa ngi say noonu laay bëggee maanaam euh, Baye Cheikh mii mhm. ndax ñoo bokk fu ñu dëkk mhm. yàlla dogal baayam di suñu wëllëre mm-hmm. ba na ko xam ne ba léegi ci sëñ Tuubaa lañ ko xam liggéey ak jaamu yàlla rek ci lañ ko xam Baye Cheikh mii ci taal bi la judd am na loo xam ne jëggaanu ko da koo doon mm-hmm. kon nag yaay maa ngi lay yaan yàlla yàlla yeggaleel sa ndaw mm-hmm. ba mu yegg ñu lay siyaare sëñ Xaadim Njuur mi nga àndal ak bokki taalibe yëpp di siyaare Baye Ibrahima mii nga xam ne jànkati man mënuma leen a fay ndax ku ma ci gis boo sañan bala ngaa yëkkati sa kàddu dégg ma mm-hmm. di ma bëggee ngir jëmmi sëriñ bi te lépp sëriñ Tuubaa rek laa koy sant mm-hmm. di ñaan ki ñu waroon a bokkal plateau bi te moo mm-hmm. am ngànt te di ko jéggulu ah sëriñ Abdoulaye Diop bis sama borom yàggal ko fi maanaam ba li mu sëmb ci liggéey sëriñ Tuubaa mu liggéey ko ci coobareem te dara bañ koo dog bi jaay Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi Ndiaye jërëjëf soxna Khady eh, ñu nuyu ko tooyal nga xool yëpp tuwaar kàll dafay wax ne plateau bi amoon fii sax neex na li ngeen jot a ubbi fii Eh, tubaarkàlla eh, ñu ngi ñaan bu baax a baax a baax te am kontante eh, soxna ko nga yónnee léegi ay nuyoo ndeysaan bi ma ko soxlaa ci moom laa ko jaare ndeysaan mu bëgg ko lool ak sëñ Mbaye Diop xayra taalibe sëñ Modou Bousso Dieng sëñ sëñ Jiili sëñ Mbaye jóob maa ngi koy nuyu bu baax ak sëñ Jiili moom alaaji moom sëñ Modou Sa Falilou di xalifaam di ku baax bëgg sëñ Tuubaa te it jàppuñu te sëñ Tuubaa rek tax. Baye Ibra ma bàyyi la nga nuyu tamit ak téléspectateurs yi. Euh, maa ngi jot nu nuyoo sëñ Mbacke Fall léegi nuyul ma maay bay bay ba ak sëñ Sonia bu Mbaye gaa yu baax yëpp ana la mooy ubbil ab la sëñ Moustapha Diop tey ak sëñ Cheikh Ngonde Gueye nee na ñu ngi leen seetaan sax Ngonde nag nee na moom Baye Cheikh ay jàngkatam sëñ Moustapha Diop nee na mënoo koo jàngal mënoo ko ñàkk jàngal al Mbacke waaye yow daal ubbil nuyoo ba noppi rek ñu door a tàbbi ci liggéey bi ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa taqabal hazihi al abiyat bi qadri asamati saadika min xaa'iliha wajalha min muqaddamati aljannati allati u'ida almutaqun amin ya rabbal alamin alhayu alqayum allahu kawni sururan muntaqasa ولا يواجه لي ما ساخت ساب الله كوني سرورا منتقاسا ولا يواجه لي ما ساخت ساب lil muntaqaadati busra bila nafadin bisni man xadani amnan wa insaab xibbi wa illi dawaaman laa yuwajju lii xayral ihbaa wa qilli الكبير دبا يقود لله بمختار منه منن بيا بصر في دارين أباحا يقود للمنتقى بالله منه منن ليس تلاقي عسى لم تنوي إنحاب أسني على خير باخ أن مد يدي لا يغني بأبديها من أنحاب لنار قلبي خليلا قد يوصل لي ما لا ينال بليح ما أورع هذا الحبيب الرسول لله لي أملي خد خاد لي من مالي هذا أورع يدي وقلبي وروحي لا سند بدلي وخاد لله تسخيخا ويبخاب يدي وقلبي وروحي لا سند بدلي وخاد لله تسخيخا ويبخاب يمنى مصطفى صفاه wirdan wala yuwajiu li ma saaxa isxa waji ilallahi bi muxtaari muntajihun wa ma talabtu bihi min maliki jaaha muhammadin li yaqu bi suhla dunanan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 di nuyu mbooleem kuy teewlu jotaay bi mm-hmm. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mm-hmm. di ko ñaanal suñu boroom guddalaw fanam te wéeralaw cëram ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Touba maamam mu defe ko ni mu ko soobee te ànd ko mbooleem taalibee Serigne Touba yi di siyaare bu baax suñu sëriñ bi suñu buntu ci sëriñ Touba muy Serigne Sidi Mouhamed Mbacké moom Serigne Abdoul Aziz moom sëriñ Baara Mbacké mu ngi koy jiital ci siyaar bi di ko ñaanal suñu borom a fanam mm-hmm. te wéral ko ba lim yéene liggéeyal maamam mu defe ko ni mu ko soobee di siyaare sunu ñaari wajur te di leen ñaanal sunu borom guddal seen fan te wéral leen di siyaare sunu kilifa sunu jur sëriñ Ousmane Mbaye mi nga xam ni bu ñu tee fii mën a yëkkati benn arafu xasaayit ci moom la ko yàlla jàllale ñu ngi koy siyaare bu baax mm-hmm. di siyaare nag ñi ñu bokkal jotaay bi mm-hmm. di sëriñ mi di nit ku baax. wallaay di sunu mag di sunu xarit. Mm-hmm. di nit ku bëgg Serigne Touba. Mm-hmm. di nit koo xam ni maanaam moom du ñaar kenn lanu ndax mm-hmm. dañuy waxtaan ci lu bari. ñoo ngi koy ñaanal suñu borom guddaloo fanam. ba yéeneem ci xasida yi mu defee ko nu mu ko soobee te bañ ci am benn di siyaare soxna Xadi Njaay mu baax mii. ci njàng mu neex mu am solo mii nga xam ne moom ubbi. muy Matlabul bi. donc koy siyaare bu baax te di ko ñaanal. suñu borom mi nga xam ne mu am jàmm. te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na yokk sa jàmm ci barke xaadima rasul di siyaare ba sax mm-hmm. comme ni ko ñëpp waxee rek ndeysaan ñoo koy ñaanal mm-hmm. moom nan ko ñaanal rek ndax Serigne Touba ku nekk ci yoonam wii mm-hmm. yaay ñaanal sa bopp kon nan ko doolee ñaanal suñu guddal a fan te wéral ko ba mu àggaleeg sa boom amiin amiin di siyaare sëñ Hamidou mu baax mi jërëjëf sëñ Baye ba jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay siyaare baax te ñu lay ñaanal nag Serigne Amadou Mbacke yu fay mi nga xam ne borom di topp wallaay ñoo ngi koy siyaare baax te di ko ñaanal. wallaay wallaay jërëjëf Samb jërëjëf. jërëjëf Baye Ibra ñu sant ko bu baax a baax eh, gërëm leen ci nuyoo yu am solo yooyu ziar baax sëñ Ousmane Mbaye ni ma ko waxee léegi eh, xam nga ni tubaarkàlla eh, ñaadam kéemaan la soxna Mati Diouf sëñ Abdou Wade ñu ngi koy nuyu. indi na fi ay addiya ay xeeti xéewal keek yoo xam ne nga fële moom it defu ko tey rek àllarba ju nekk day woote dee ma wax émission bi bu ko defee mooy indi sama barkeelu ñu ngi koy nuyu baax soxna Mati Diouf bëgg fallu euh, Alaaji Njaga Sekk nekk fële ci RFM ñu ngi koy ziare nee na ma ziaral ma soxna Xadi Njaay sama lépp la euh, maa ngi koy nuyu baax di ko ziar sëñ Alsaan Guèye gendarme la ma nga ca euh, Ndula takk dala nee na ma ziar mbaa plateau barke sëñ Tuubaa teg ngeen ñu mbégte moo xam ne nii xamatuñu sax lu def sëñ Alassane maa ngi koy nuyu euh, ma la ñu koy ñaanal yàlla dakkal ko grade yu bare bare baree bëri ak euh, maître Bay di Mbay sama avocat boobu maa ngi koy nuyu di ko ziyaare sëñ Ndongo si la ma nga ca Atlanta sëñ Ndongo yow euh, dooyam ci ay maa ngi ziyaare jaaral fële nga war a jaar xool noo def ak sama invité yi bala ñoo coupé kenn ku ci nekk dinaa joxe numéro am yow xam nga ma xam yaa xam bu mu jaar man nag ku ci nekk naa joxe numéro nga xool nooy def bu jaar ci Pape Cheikh Bayit na jaar ci numéro yi ma lay bëgg a jox allah dinaa la ko jox léegi ci kanam Euh, balaa boobu euh, kon dañuy daal di tàmbali ci liggéey bi bàcca su la neexee mën nga nekk mën nga naturel bu la neexee nga taxaw nii jàng su la neexee nga jàpp maanaam lu noo ko ko yëgee rek defee ko noonu la indil benn kii yow noo ko sentiree rek defee bu la neexee toogal bu la neexee jugal taxaw bu la neexee doxantul en tout cas foo nekk caméra bi dina la fekk nu noo ko sentir ko yëgee rek yow defee ko noonu euh, sëñ Ndonga Sylla maa ngi lay ziare baax soxna Aji Diop te Floride ñu ngi koy jàmm ak soxna Fama bu baax a baax Euh, soxna Rama Mbàkke moom sëñ Abib moom sëñ Lumbe mi ngi topp jataay bi ñu ko jaar ak doomam soxna Nday waaye di nuyu baax euh, sëñ Cheikh Badar Mbàkke moom sëñ Abib bu moom it nga wax ne mi ngi topp jataay bi sëñ daam euh, lu sëñ Muntaxa wax bala ñoo bàyyi Cheikh di installé wu ñu jox li nga xam mooy micro bi mu daal di tàmbali nag ci njàngum xasida bi ñu àndandoo ak waa Rési jox sëñ daa bàyyi Cheikh micro bi. <laughs> Kumpel. ay ca suñ daam jërëjëf Euh, sëñ daam euh, gërëm waari si waaw koy sañ xaarim si la yónnee na juróomi junni euh, nee na moo ko xeeb ñu séddale ko ñi nga xam ne ni ñooy la ñoo nekk ci plateau bi kon sañ xaarim ñu ngi lay sant di la ñaanal tawfiixi sëñ Tuubaa yónnee na juróomi junni nee na xeeb naa ko lool waaye maa ko tàmbalee ci àddee ji kon ku nekk dinaa la jox numéro am nag sëñ xaarim nii la murit tubaarkàlla noonu laa bëgg tey daal maa ngi ñaan kuy sama xarit yow daal wooteel rek ne ma jox ma numéro bu may tàbbal nangam ma jox ko sama gan ñi loolu laa bëgg tey sama xarit bi maa ngi nuyu maa ngi lay ziyaara baax sëñ Baye Cheikh bisimilah auzu billahi mina rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa ala wa sahbihi tasliman wajjahtu kulliya bihamdi wa sakur illa waliyil muminina wa sakur وجهت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك العادي البصير أجبت فورا للسواد كل من ليس يكون مؤمنا يا الزمن أجبت فورا للسواد كل من ليس يكون مسلما يا الزمن أجبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يصدم نفرتنا بأفضل الإيمان فلترفع الدعاء بالأمان عفشتنا به وبإسلامي فتغسل كل عن الملام قدمت سيد البرايا خمرا والأنبياء والرسل يا من قمدا قد الصلاة والسلام أبدا لهم كما عصيت من لم يعبدا إلى النبي قل بصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي للمنتقد ما يسر بلا نهاية وقمتي تقبلا يسر لسيد الورى مقتارا يا باخيا جعلوا مقتارا لا فيصل ولتسلم في أبدي على الذي لقي يقود من أبدي وقت صلاة لجميع الأنبياء ورد بالتسليم واذكر بياب لا فيصل ولتسلم في احترام على النبي والآل وصحبه الكرام صلاة في العرش العظيم الصمدي على النبي وآله وأمدي رد مكائد العدا إلى العدا يا من عبالي بمعجل العذاب أوصل لكل مؤمن ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات النساء مؤمنة على بشارات ترى متصلة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد محمته كن في يكوني يا من يكون من لم تكوني ناديتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يقود لي كن فيكون العاجي منك بلا عقد ولا تعاجي نقيت العذاب وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا موت لمن لم يسلموا كوي لأمة النبي صلى الله عليه بتسليم رب جل إجابة تساسي والأقدام إلى سوى سرمدا ودا نافع يا كريم يا محيمن ليطجب والذي يعيمن حفيظة الأمة خير المرسلين على الذين كفروا برسلهم خذ لهم نصرا عسيسا عاجلا وبصرهم عاجلا وقاجلا خذ لسوي الإيمان ما يسيدوا ربك يا من عندهم مزيد عن سوي الإكرام وعن ركوني اللاعدة وعن السكون على النبي والرسول المنتقد صل وسلم يا مبيد من جاد المتقى والآل وصحبه الكرام بسلامك وجل بالمرام يا من له خلق من له الامور يا مغنيا عن تني عن الدمير ناجيتك اليوم وامس الراجية ولقد دون سك عاجية رسل امة النبي احمد مصليا عليه في من قمد نصر عسيس نسم الكبار مع سعار لهم من بارع سمع القديس وفرق الكتاب ان الذين انتنوا من المطاب رفعوا بالفهم الكتاب والفراغ مع العارس عيسى براء اتتني بيعدون صلبي ولتقود صلى وقت طلبه يعوس للذي يريد أنفه بالورى يا منعيا عن نفعه ما عوس قد ضر لي بالمنتقى وخط لي موضوع صوتقى وجدت لي ما لا يزال عجبها في عبد لسالقين عجبها مدد لي مدد من لا يعفى علي شيء جدت لي بالآفام نفيت كل من خلاني فارب لما يسوء دواما ساكرب إنه يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معه من الشياطين فسكري يسمعان وتكسكري إلى الرحمن عن مالك الرقميس الأصماني كرمني في مودي وبلدي مقرم بالأمن الصفا قلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الدر وفيد وكفى نجيت ربي بسار رمضان سري أماني والمنى والفيدان حمدته خبر يسوق سمرا لخيرنا إبليس سوقا أحمدا قلوب جملة العداد وجاد لخير الدر والمنى والوجاد قلوب جملة الذين أخلقوا يتوجهان ورب المخلقون نسينا سلفني قبل نعم مدرتي كذاك القبل أنيت فالمدرة والبلوى لفضل اللي يقاد قلوى له شكوري إلى الجنات نهر المنى والأمن والمنات اسمه كلي بالكتاب بلا معادة ولا عتابه نجته تناجي التكريم ولم يسب بنا في كريمه إليه وجهت بنا كتابا مع اليقين وفؤاد تابا نصرتني فإنك النصير مع تقلبي إنك البصير سمد قد أفتني في رمضان مع وأنت منك قبله بالفيدان ردت اللي فيه الذي أببتاب لو جالب الأزاز زببتاب أجبت اللي جواب من تعالى حسنة وقلت اللي فعالى وجهك الكريم أوصل الفرجاب يا مؤمن هنا وتعاقع الرجاب مصليا مسلما على النبي بسر كل آخر وأدب به ولياب لمسلمين فراب يا من مع أن يسا والترعى موت ما علي مر من بلاغ يا من جميع قدمي تقبلا نتيجي على المصطفى بارسلك مع السلام المقدار أم القلاب جلهم به الذي ستة عشر فكل ما يسرته تيسرا كذاك عبدك القديم عبدك مرتجيا للمنام عندك فسلسين سعيد بالخير وباء من لم يسدوا بالدير وكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار بتعيم شق الذين تركوا العبادة نار من من يتعبد تحب من أراد أن يقدم أبرمهم من يفهم للجماع نساء من بارثت الأرض بكاء فكل ما أباوش الكرس بكاء إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة الرحمن اقتبسوا بطونهم ستنا الأقارب وكل منهم من سديد سارب للمظلمين ولكل المظلمات نور الذي أصبع أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما شبهوا مقلدون منهم مقتوى بالاستلاب وكل بالبشر القلاب رجعهم وقلهم ملكوا كعبد ما لا يرى ملكه بناؤهم يالو وليس ينسفل ما مبارك عليه منصفل بالله آمنوا وأسلموا معه وتصلوا لوجه باقي القمع قل إلا وهو الرحمن هو الرقيم هو والأصمان من له أنف وقمد وسكور ساق المدر المطفى غبد سكور قالت جملة من المباقي لمن كفاني الزوي النباقي أشكره وقادي أبدالا كما كفاني قرب والجدالا سبحانه وهو الكريم وقميد كل من لم يعوني فعقميد تسليم من لله يوجع الدرل أنا الذي به كفاني العرل نساء من جل عن المثال لقد ما خاب عن الأمثال الحمد لله بالانتعاء على عبد الله البقاء براعة المختار ليست تعفى الأقام لغلى من منك اللقام للمصطفى وجهة ما قد صرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطل الباقي الفساق ولإله قصص عن ذاق ملكت ربي مالك كليته خليله عملي ونيته رددت بالله وبالرسول من قال في العقل ولن تسولي برأني الله من سقوى من كل نفاق وسعادة دم برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام النبي والذي لا مر خيره ولا أراه في سنة عدا ولا ولا محمد صلى عليه بالسلام وسيلة الله ولقاد كلام فرعن الأكرم تفيق يدوم لأني قل وقب وقديم له كتابي وما الأقدار ولسوانا وجه القدار اعتنى على العدا فقلبه ولسوانا ساقرين قلبه تسليم باق القادر للصواب على الذي أورثني صوابا على الذي طلب كوني القديم له سلام القرية القديم لما الله كليتي عبادة حمدي ومن قال فني أبادة من كل شيء لسنا مباقي لقد ما غاب عني المباقي نعجاني العليم والقبير وجادري وسوى الكبير فرعني جميع النعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاري لمن قبلنا مكرتي من ليقود من نعام ملكني الملك والمليك ومالك ليس له تمليك أجرا كبيرا وصوابا وجسا والعدل في رمضان نجسا أجل الذي ما لا ينفذ وصل لي ومختار والنفض حمة خير عالمين أمرا عليه تسليم كريم قمدا فرعت القلب ونفسي طيبت وبالمكارم لخير صابت يسر خير عالمين علمي عليه تسليم مزيل علمي المتفاوتة ملقادات نفن بلا مدرتي فانقادا ووصفي وهو سجاع بهما سمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في العلو وصعب مواب في العلو وصب ومن والاه مع بلائي ومع أمراضي وفي الذات القادر لأغراضي نبي المقار خير الأنبياء عليه تسليم حبيبي ربيا وكله كليتي في علنه وسلوى ولي قاد ولمه حفظت قمتي إلى الوسيلة صلح لي من أرى تبديلا حفظت قمتي إلى المعيشنة وليس وأنا ساع كل من فند والنبي ورسوله والقليل وخبيبه يكسر القليل تسليم باقي لا يسال صمدا على النبي ورسوله أحمدا وسلامه كريم صمدي على النبي وسيلتي محمدي تعالى بوسيلة محمده أقوى سلام الكريم صمده يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه تدعو يبتجر ناديتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فترة فوق الصم جئت بسبعة ذاكرا لك به وقبل لي قد فضلك صدق سيدتي شكورا ولم تصنع ملكي شكورا أكرمتني إكراما ما سفل وكل ما أردت منك فل أصلو قولتي القصيدة خارعة لعادة مفيدة يا خي يا قيوم صل بسلام الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وتقبل الكلام منا على قارئ الحروف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 sëñ Baye Seex yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla def mag yàlla na yàlla may nga yeggale li nga bëgg di gël xasida waa waa waa mbirum soxna si ba léegi man bëgg naa nga ni ma ci leeral gis naa gars yi di ko leeral di ko leeralaat. soxna moom wax dëgg fa yàlla amaguma ko moom. ah man ñu ne ma Baye Seex na baam ak njaboot nangam nangam. ah gars dañuy wax rek waaye. Ah. teel na de moto bu ma ma gaa am de xam naa moom. man daal damaa benn jarbaat boo xam ne ni Fatou Niang. Eh, daf maa wax ne ma laajal ma bàyyi seex ndax damaa déggoon ñu ne amul soxna te damaa bëggoon jaayante sama bopp ci moom. <laughs> ëpp naa def. <laughs> kon Fatou Niang dégg nga ko eh, tubaarkàlla eh, Baye Cheikh dina ëpp naa def kon ëpp naa def tubaarkàlla kon Fatou Niang du ma la may seex Cheikh tubaarkàlla ndax bëggoon naa jaayante joxe boppam. naa laaj Badara ak Adja ak soxna Jatu Tuwaar Kalla ak soxna Coro eh, macha allah soxna Bintu Jaxate ñu ngi koy jaar baax saan mooy ñu ngi topp jataay bi eh, sëñ Sonia bu. léegi nag dañoo bëgg bi xam nga kenn du xoolal weeru koor ni mu daan baree ay patet ay équipe jaar fii far weeru koor yooyu moom ñëw jébbalu sëñ Touba. weeru koor 2021 moom daa saf sàpp ak sëñ Touba moom. xam nga di dawag daay di dawag lakk far tàbbi ci daay moo dal waa senegal léegi foo jàpp gis sëñ Touba ku yor sa télé sax boo waxtaanee sëñ Touba benn xorom doxal xulu bu zawil udwaani siixat li xayri naa ka abdaanihim wallaahu li maskini yuqi sëñ tubaa bi mu jàkkaarloog yàlla ñaanu ko ay dama bëgg dugg ci magasin beeg caabi magasin bi la soxla ku soxlaati maa lay jox yàlla tàggat na xolum noonu ñu jub si ma man ndax alibtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii yàlla sëñ Touba la nekkal tegg fi sëñ Touba de yàlla sëñ Touba la moo tax reen weeru koor ren ku yebu tuddee ko murit saadi wala weeru safar rek xam naa ni xaw ma weeru màggal gi bu ñëwee muy mel waaye mag koor gi moom comme safar rek tubaarkàlla foo jàpp seen sëñ Tuubaa ji saf na sàpp moo tax lu yàlla def ko ku mën a joxe ñam joxeel ku mën a joxe alal joxeel ku mën a julli jullil ku mën a naafila ndax ci sëñ lañ ko yóbbu mu yóbbul ko ci yàlla euh, sëñ Soye bu waaw ñun dañoo sant yàlla alhamdulilah war a sant corona dañ ko war a sant kon jërëjëfe corona. waaw xam nga waaw mooy li mu amagul yii feeñu gutoon. déedéet fi ne yii. waaw diggante daaw ak ren la feeñ. confiné bi ñu confiné nit ñi ci biir kër gi. Mhm. ci biir kër yi. waaw moo waral yii feeñ nga xam ne amatul jànkat bi dematul fenn jàngeetul fenn. Mhm. moo waral télé yi sacrifice seen bopp def def plateau yi spécial. def jàngi waaw di wét limbur def jàngi. <laughs> def jàngi force. te te te loolu. <laughs> wallaay xam nga ku mel ni Baye Cheikh mi. Euh, man man xam naa ne duñ gaaw a bokk ci plateau. ndax man daf may yéegal dollaay ndax man sëñ ñaamir man sëñ Tuubaa dëgg la lu dëgg la man dëgg la sëñ Tuubaa laa gëm soxlu ma dara kenn wallaahi al asim billaahi la si rawal laa ilaha illa huwa barkeb gës bu ak may boobu mu xaddimaat soxlu ma dara kenn man loo waaye am téel mhm. lu sëñ Tuubaa amut suur naa dëgg la wallaay dëgg la barke sëñ Tuubaa njàng mi du loo jooyloo parce que xëy na ndawee na ba pas-pas bi xëy na des na mhm. waaye boo xoolee ni muy jàngee wallaahi ak pas-pas bi bi am ci njàng mi ak ndawe gi ndawe waxu man nañ ma indil rek maam nañ ma indil feneen keneen feneen ku man di toll amul feneen amul dëgg la amul feneen dëgg la léegi nag loolu moo lay yéem barke Cheikh Rafal dëgg la man sama xol sedd na loolu tey wallaay wallaay la bu ma xam sedd na da nga mën a jàng waaw dina boo ne woon der man fii ne sarsi nañ ma daal di continuer danaa jàng tey plateau bi du yomb tey dama bëgg mu neex mm, tubaarkalla bismillah si duxum sànnay laay bil mu najaate yow waa badan neex naa yedd ya naaj sànnay laay bil mu najaate yow waa badan neex naa yedd ya naaj dalaayu lamaa wal awliyaa من لا يسال خوة وأولياء خزتي فاخر خسائد الكرام ولي تقود عبدا خير المرام أديتي مخجلة كل الملك كان مناشيا وخسر الملك ما توجه مسار الله ليب إلا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم عسى مطلب شفائي في توسل الله talaaw dana wadaay wa muusil sifaay wadaay man ma li baada bi duaay li alfan bi anil baraay man ma li baada bi duaay li alfan bi anil baraay zuma la mas masa saamarat yabra bi laabun wa faasa bil xarat suma la manaysu masa saamarat yab rabbi laa budun wa faasa bil xarat muhammadin tibna lakim aska salaamay rabbina karim waali wa sabbi suy laalaay maxtaaju sula saamini sifaay asawa in yowma sow jaay mubtaqiyan aw nan mujibilaay asawa in yowma sow jaay mubtaqiyan aw nan mujibilaay wa sakkilihima mina daral xatma se ni atara ni moo talal yaa ranaaw bu jay xayri alamin alakrami suma bim ramadana suma bim ramadana ramadana ramadana ramadana ramadana laxsun yallaaw ya rahmanu ya rahimu ya baru ya karim ya asim يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يفوسنا بنا تقبل منا وممانا وتجاوزنا يفوسنا بنا تقبل منا وممانا وتجاوزنا واسلن يا ربنا خير يوم ما كان ما نخاف من سر نخام وهب لنا الأدب والمسايا وكفر الآفات والرزايا وابرس الأتات وكفرنا الكسل في الأوقات وابلغ الإسألتات وكفرنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا صافي يا بر يا لطيف يا معافي yaa man lahu abwa ya saafi an si sifaaka ma kaana daay wala tuhaamilna bil ibtilaayi an si sifaaka ma kaana daay wala tuhaamilna bil ibtilaayi wan si nafa ma kaana durri wan sil xayra ma kaana sarri wan sil ma ma kaana jahli wan sil jooda ma kaana albuhli وانس الخنا مكان الفقر وانس سرور مكان الكفر وصف جمس من عجلا زما خيم خوف لا عجلا وصف جمس من عجلا زما خيم خوف وصنا عجلا ونجم وافم والتبيم ولا تواخصم بكثر سنبيم فإن ونسقيات فإن سنبamba way na wa naw ga yaan yaan yaan yaan yaan yaan way na wa naw ga yaan yaan way na wa naw ga yaan li xaw la di lawri go bi gaan fay na wa gaanam la jaxaadiro la jaxaadiro تقدر في النوم دانه لا تقدر على بلايك على بلايك على بلايك اليسر غلوب ليس تمر بداو إلى سواك منا إلى خداو لكن ما لكن ما سين بامبا laakin amaa laakin amaa laakin jawaari jawaari jawaari laakin amaa tallasatul jawaari hudamul yaqbayil xabaayi fala tuaxisu بما لا يخشى قل بالذي لا ينفع أي مبك يا الله يا مخلب القلوب يا خلق قلوبنا عن اليوم واخرنا بكل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجل جميع المسلمين ترى لنا خلافا نكفى درا وجل جميع المسلمين ترى لنا خلا ظنك فادراو وشل جميع المسلمين ترى لنا خلا فنك فدرا وشل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات زمها في المخداو وشل جميع المسلمين في ارتخاء والمسلمات باستعداد امتخاء وشل جميع العلماء العاملين وشل جميع العاملين المخلصين وشل جميع المخلصين الناسين وشل جميع الناسين الصادقين waccal jami sadiqin saidin waccal ya rabbana bil xitma bil xitma lil muslimina badan wa raxma wujilum fi nawdan wa xayra wakfu mina san wa dayra waxrina bihu bihim li wajhika waxrin bi bina farasluka wajal jami al ixwati wa nasabi fi raxmati yawma sidadi nasabi wajal jamii ixwati wa nasabi fi rahmati yawma siddad nasabi wajal lana una wa anasa shamtatin dufadulan fanusaw wajal lana una wa anasa al makarim al akhlaqi maata bu bin bila siqaaxew wajjal saxiirana yuwaqirul kabir wajjal kabirana yuxinul sayir wajjal xulubana ala tawaadudi bila tanaasuin wala taasudin wala taqaasmin wala tadaburin wala tabaaxudin wala tunaafurin ataana sira muslimina xaasin wa muminina mulisina zaalin ata nasiral muslimina xaasin wa muminina mulisina saalim waxfir lanaa waafina biaafiya takun fi daarayni xayraafiya waxfir lanaa waafina biaafiya takun fi daarayni xayraafiya waxmi wakufana an maslama wa naj kullu muslimin wa maslama ومد وكفنا عن ما سمم ونجي كل مسلم ومسلم ولا سيرين بامبا ولا سيرين بامبا ولا يا ربنا يا ربنا وصل الختام عند الممات وغدا إلى الممات waxadan hinal mamat waxadan hinal mamat waxadan waxadan waxadan waxadan waxadan hinal mamat hinal mamat waxadan yawm al khiyam hinal mamat waxadan yawm al khiyam hinal mamat waxadan yawmal qiyaam ngel ma maati wa xadan bi jay xayri man safa lam bi jay xayri man safa lam wa bal mar ko bawal bi xayri man safa lam wa bal mar ko ba wal laqraada muhammadin al umami al mubrayil lamraaru asxaami muhammadin tabibin al umaami al mubrayil lamraaru asxaami wasallim alayhi suma zalima ma zaabil kurama wasallim alayhi suma salima waalihi ma zaabil kurama maflal bi duwaay wuufeel maridu bi sirfaay wali naasi maydan zaadawullahu shifa an wa faydan yaa man yàlla mu daan fa kulla day yaa man yàlla mu daan fa kulla day yaa man yàlla yaa man yàlla mu daan fa kulla day fala tufariq man la bu sifaay man la bu sifaay man la bu sifaay man la bu sifaay bu sibaay faatu faarik mala bu sibaay wadama lay fil masaay wadaba waqli santana siba an wa faraay rebi sabina wa jaayil mustafa bin rabbina wa jaayil mustafa bin rabbina wa jaayil mustafa mustafa mustafa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 Eh, yàlla la sun borom guddal saw fan yàlla la suñ tubaa taxawu yàlla la sëñ tubaa defal tawféexi àddina ak ju àllaaxira barke xaadim sax sunu xol sedd na lool wallaay émission bi yamoon fii sax bég na ndax noo ngi yëg loo xam ne ci mbégte mënu koo génn sax ci suñu làmmiñ sëñ tubaa rek lañ koy seddal eh, soxna Xadi ma bàyyiwaat kàddu gi am na micro bi nañ ma ko joxal soxna Xadi nii nii eh, su ko defee ñu àndandoog sunu kafe sëñ Atumaan jërëjëf ci segg bi Euh, jaar na lool euh, joxal ma sëñ bi kaas bu tàng jër tuwaar kàlla jërëjëf sëñ Atou kon soxna Xadi bismillah waxtala naaye tala naayi ni lu wa naa loo waxtala naa nay wana lo talanay ay la la talanay di lu wana lo talanay lay lay la la sunu xalifa sëñ Muntaxa naa loo dala naa xalifa sëñ Muntaxa naa loo dala naa yee. la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah ni mari jalo lo ma jalo nalo wala la ya la ونالو لو ولا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ردا سمي على الجميع يوم خصوص يا من دايه lay lay la woo borom daaru lay lay la baaxi mayre awi di daaye lay lay la la woo lay kulum su jaawo la warti baawo la warti faaw waxtari faaye lay lay la la wo rum اختفايا لا لا لا لا برم دار لا لا لا لا لا لا لا لا لا خير أهدا ودير ودير بيون خير درايا illallah illallah la ilaha illallah de la mawli badre wandira la ilaha illallah allah la ilallah illallah la ilaha illallah umre li قوامنا أمري ما هيبة نوري بلا تيرايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله solo mal jira ya jala la ilaha illallah allah la ilaha illallah la ilaha illallah le ya abtale عليه وعليه أجدوا لا إله إلا الله لا اله الا الله سن بما جلال يا مطال خير اجدوا يا خير سن بامبا غوريل تيري نون دلي دال غال غير والي اجدوا sëñ bamba gore la teeroy noon ye digal gaal ga xayra waale ahmadu kabar jambe sëñ bamba kabar jambe ma la digal gaal ga waale ibdu sëñ bamba gore la teeroy noon ye digal gaal ga waale ajudu waale sëñ Bamba kabar ñamem na digal gaal gaara wale ajib du waaye sal jalale yaa murtawa مرابي Xaadim barke Borom Tuubaa soxna Xadi euh, yal na la sëñ Tuubaa taxawu may la nga yeggale li nga bëgg a liggéey ci xasida yi xam nga dangay ngay xool production bi ñu toll tey ku ne daan ba suur toog ci sa kër soxna Xadi di jàng sa xol di sedd borom mi ko bind ba mu déparé 10 août ba 1902 amul liberté le 10 août boo calculer sept ans sept mois quelques jours yi ñu wax 10 août la ba 1927 ba 1921 yëpp amul ci liberté amul xel mu dal moom bindee nit jënd lu ko daa nit joxu ko xalim nit weeralu ko këyitam nit wutalu ko ñam nit joxu ko mu dog nit joxu ko mu reer ndékki waxaalisu ko waaye mu waajal boppam rek ci mbind mu neex mii da ngay gis léegi maa ngi gis ci YouTube bi ku xool rek danaan ñoo ngi noos borom moom ba mu ngi noosul woon waaye nag kuy xëccoog sëñ tubaa ci àddina si ab cër xam li taxawaat ci sëñ tubaa kaw suuf ndax arène bi moom yaatu na ku ne mën ngaa sóoru mbër mu la neex waaye yenn saa yi nga dugg ci contrat boo xam ne jënd ca dalay gënal dugg ca ndax ndeem soxna Xadi mbaa sëñ Soy bu mbaa sëñ Ibra mbaa Baye moo mën a jàng nga jooy yëg sa bopp waaw léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu koy wooye daf na ko bi xidmatin libni abdillahi jaalibi ma nuuta wa dafi ma nuk faa minal bihaani sama liggéey moom ci yonent bi laa koy jaare doomi abdullahi ji nga xam ne ni mooy fekk jafe-jafe yi waaye mooy indi yu duuf yi moo tax da ko ne ubbi rek duyal ko ba mu fees tey xoolal ku ci nekk xas bi jàng bokkul ak ki keneen jàng te ku ci nekk yaa ngi yëg sëñ tubaa ci mbind mi sax yaram di daw nan la def rasulullahi nam ko def ba yegg foofu ba mu yëkkati ko jox ko ay li yéwén yenn saa yi sax tàggu jàmbur sax nit yaramam da ciy daw Pape seex mais yenn saa yi géwéli tàggu ko tàggu woo xam du tàggi nag moomu ko sax waaye yaramam da cay daw ndax déggin wi rek ak réemé ji mooy neex yenn saa yi nga déglu woy wax ne nii ka koy woy Brésil la nekk nga yëg ko sa yaram daw moo ne xamoo làkk ba muy woy ak lépp asamaan ki nga xam ne moom ba mu ko ne dann ba tey jii musul tegg ko loxoom ci moom waaw léegi ku mës a liggéey yonent bi muy Kaabu muy Hassan muy Buseyri ku mu ci mën a doon posé naa question wax leen ba muy tàgg yonent bi ci yan cause circonstance la ko doon tàggee ku ci nekk da nga doon añ di reer di ndekki doo tàgg yonent bi moom yëpp dañ ko koo xañoon amul liberté toog na ba yàgg mu namm Tuuba dem ba jub nga bu fa lañ ko dëppee mu dellusiwaat njaari fukki at ak juróom 15 ans.

ndeysaan tubaarkalla jërëjëf soxna Khady eh, yàlla yàlla guddal fanam eh, soxna Salihat maa ngi koy jaaree foofu ca Mbour tubaarkalla maa ngi naan bul yàq plateau bi Eh, soxna su gaawaan Diop soxna Bintu Jaxate nee na soxna su gaawaan Jaxate moom dafa bëgg sëñ Touba ba bu ñu tàmbalee rek mu daanu moom soxna su gaawaan Jaxate ak soxna su Jaxate ña nga fa ca Touba Darul Manaan ñu ngi leen di ziare bu baax a baax eh, say saar bàyyil jàmm bi ngay dóor la maa ngi ziare soxna nday soxna laat moom it ca njaarim sëñ Basiiru si la jànkatu kosaay bu mag la eh, dem ànd ak sëriñ Xaadim Géey ñu ngi koy ziare xoolal léegi li may wax Baye Ibra ci sëñ Touba bëgg siyaari yonent bi ñu ne ko doo dem mu bëgg a dëkk Touba ñu ne ko doo fa dëkk ba bi muy jóge njaareem di ñëw Touba Cheikh Moustapha Al Karim a ko indi xoolal maa ngi jot benn message benn message u koo xam ne ni gendarme la takk der la ma nga ca Mbàkke eh, mi ngi tudd mm, sëñ Moussa Cissé sëñ Moussa Cissé Touré nee na mi ngi mi ngi mi ngi bég ci palaato bi takk der la dafa daaru ma maa ngi fasanteeg maa ngi sàkku nga wax ma ñoo ci palaato bi ma fasanteeg ñoom kóllëre te sëñ Tuubaa tax léegi nattable ko ak ñi daan takki garaat ñu dikki sëriñ bi ñu ne leen bu mu génn njaareem yàlla fay na sëñ Tuubaa gis nga boo xoolee aslaha zahir yi boo xoolee baatinam ak zahiram saayir si rek suñu saako ne mbirum saayiram mbirum baatinam ak zahir ak mbirum zahiram ak baatinam dara yàqu ko loo ci teg rek mu set wicc saayiri sëriñ bi rek ngay xool moom bu la yàlla fay na ko jërul nga xalaat karaamaak gaynde gaak yéeg nangam nangam mais xoolal rek li si di réaliser ci jamono ji ñu toll maanaam lu waay yor yor garaat ak lu garaat ba rëy rëy rëy boo gisee lu bokk sëñ Tuubaa loolu dootul feeñ yàlla fay na Cheikhul Khadim ah kon nag yàlla na yàlla fay sëñ Tuubaa mbégte moomu euh, Baye Ibra gaañaa ngi naan ma euh, xaw ma kii bi nu mu tuddati am na lu muy jàng neex waaye kii ba euh, taxmis ba

أبكر سكري لرب الكريم كان سكار وارتجي منه في الدارين أبكار اللهم يا سكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واسكر جميع الأحمال وارفعها إليك أبدا خالصا أبكار سكري لرب الكريم كان سكارا واتجي منه في الدارين أبوكار خالصة مقبولة آمين يا رب العالمين سكور رافع وأرتجي منه في الدارين أبكار أبكار كتبت سكورا له لا لا لا رجوت لا لا لا سيدا وسكارا وسكارا لما خرجوت به كوني سيدا وسكارا وسكارا وسكارا كتبت سكورا لا لا لا لا خرجوت به كوني سيدا سكارا وسكارا كتبت سكرا له قد رجعت بها سيدا وسكارا وسكارا وسكارا وجحوا وجعي في لا لا لا صح النبي سند لأكرم الرافع بسركار شكرا له لما رجعت به كوني سيدا وسكارا وسكارا وسكارا وجحت وجحي يا في سكر النبي يا سكر لأكرم الرافي حلو لا إلا الله كتبت سكرا له رجوت بيك سيدا وسكارا وسكارا وسكارا رجوت من حوتا شكرا ومليك وارفع اليوم عني ما لا إلا لا كتبت ذكرا له له ما فرجعت بها سيدا وسكارا وسكارا وسكارا جوت أن يمحو صلاتي جولتي عني وتسخير لدار لا إله إلا الله كتبت سكرا له لما قد رجعت رجعت به كوني سعيدا وسكارا وسكارا ينن إني أخاتم إلى الله في البار مغتربا لا إله إلا الله لم يزل جل خارا وجبارا إني أخاتم في الباري مغتربا مغتربا عجبا ومن اني اخاطب درب مغتربا لا خير لا لا يصل جل خاقا وجبا اخاطب في الباري مغتربا مغتربا لا لا جبارا وجبارا فجحتني ربي بالآية أعدني البر ردلي كل من بار أخاتيب في بار مغتربا ولم يزل جل جل وجبارا على نبي صلي بتسليم بالقرآن هو الدنيا بعد ليلة مصطفى على نبي صلي بتسليم بالقرآن وسدني يا بدر يا كنا على نبي صلي بتعصيم بالكل لا إله إلا الله وزدني بدر رحمك على نبي سلم بالقرى ما والدنيا بدر رحمك على نبي سلم بتعصيم بالكل لا إله إلا الله وزدني badara julleen yaakona salam taslim bi kurama wa yunniya madara alga antaki ahmad man khadana ila al adabi albaki wa ahmad man khadana ila al adabi albaki أحمد من خدنا إلى الأدب شيخ إبراهيم جوب المسحري أدبي المكي أحمد من خدنا إلى الأدب المكي أحمد من خدنا إلى الأدب أدبي المكي أحمد من خدنا إلى الأدب المكي سقيم رجو مسار أدبي المكي أحمد من خدنا إلى الأبد المكي أحمد من خدنا إلى الأبد أدبي المكي أحمد من خدنا إلى الأبد المكي أحمد من خدنا إلى الأبد المكي أحمد من خدنا إلى الأرض المكي أحمد من خدنا إبلا جو مصر المكي أحمد من خدنا إلى الأرض المكي المكي المكي المكي المكي أحمد من خدنا إلى الأرض المكي Amadu man adana ilal adabiya rahmatu baru ataya bibari muhtadiya Amadu baru ataya bibari muhtadiya rahmatu baru ataya bibari muhtadiya rahmatu يدعو الفقراء فانتفى أساسا لا لا لا أما جوده الفقراء فانتفى أساسا أما جوده الفقراء فانتفى أساسا لا لا لا أما جوده الفقراء فانتفى أساسا وقت الله بما أجسى القرآن أمرت بي وقت الله kenn du moroom ibra joob masar ne watala bi ma jasal qur'an min rutbiya jasal qur'an min rutbiya watala bi juala watala bila tubiya watala bi juala طلعت بها طلابي ولا ظلام بلا طلابي فقمر أقاس بي فقير أقاس بي فقمر أقاس بي أقاس بي الخديم للمدنية المهيمن العربية الخديم المؤمن يا برم جامع القديم للمدن المؤمن رضي الله القديم للمدن المؤمن لا اله الا الله القديم للمدن المؤمن لا اله الا الله القديم للمدن المؤمن من لا إله إلا الله القديم للمدن المهيمن لا إله إلا الله القديم للمدن المهيمن لا إله إلا الله القديم للمدن المهيمن القديم للمدن المهيمن العربي والولي يوم الوزر خبك في الكرب يا ولي الوزر خبك في الكرب مصرنا والولي يوم الوزر خبك في الكرب يا ولي الوزر خبك لا إله إلا الله يا إمام مجتهد يا أمام الله إمام يا إمام mujahidin ya umama amadorale ya imama mujahidin ya umama alayhima ya umama umama umama ya imama mujahidin ya umama alayhima ya imama umama umama أماما يا إماما مجاهد يا أماما بلا إماما يا إماما أماما أماما إماما يا إماما مجاهد يا أماما بلا إماما مجاهد واو بسعدي يمتدعوك عمري بي خدا عربي سعدي يمتدعوك عمري بي خدا عربي خد رافقت لي رتبي خد وعبت لي رخبي خد رافقت لي رتبي خد وعبت لي رخبي لم تسلنا وصرنا من لم تسلنا وسران دافع لصاحب بسعدكم أولى الملك خلنا بقوة بسعدكم أولى الملك بقوة بسعدكم أولى الملك بقوة Baay Saal borom jamono axlu cant gi sant Baay Saal borom jamono nanu sant Baay Saal borom jamono axlu cant gi nanu sant Baay tubaarkàlla Baye Ibra Baye Ibra lii maa ngi ñaan ngir sëñ Touba nga def ko kaset eh, xam nga sëñ Abdou Cheikh Ibrahima Diop almasxar yi moo ko woy sëñ Touba gis nga bu ba ci walwali yi walwazaree xut bi kaasifil kuru bi sama àdduna séppay tukki ndax eh, li dàq ci mbégte damay dégg Cheikh Bassirou Gueye di ko di ko wax mooy li nga yëg doo xam foo koy yëg ci sa bopp maanaam muy neex te xamoo luy neex ci sa yaram ñëpp àndandoo rek di def kat-kat joo xam ne nii kéemaan la Pape seex sax tey laa mës a gis mu daanum jéen sëñ Mbàkke it gis naa ko tey lu mës a def production ca réalisation ba la doon def waaye tey ñoon waaye lii na nga ci liggéeyal sëñ Touba def ko kaset ndax euh, Cheikh Ibrahima Diop dafay dafa natt sëñ Touba ñëw ci Cheikh Ahmadou ba xool ñu toll mu woyee ko noonu ah cheykhun bihi unil naa kulla makrimatin xata bihi xabitat naa ahlu baydaa ah akrim bihi min imamin muhtadin alamin maljal ibaadi wa man jaahum min alfitani nee na sëñ Tuubaa mën nga ko bëgg ndax ku jub ku baax la daane waaye mooy koo xam ne boo amee fit nag njàqare ba sa xel demee ci moom sam xel dal maljal ibaadi wa man jaahum min alfitani ñu ne ko ndax ci nga yem mu ne déedéet laataa ngay ñëw ay naar lañ doon topp di leen yaakaar waaye bis ni ki tey weddi nga loolu akrim bihi min imamin muhtadin alamin maljal di wa man jaahum min alfitani sànnoo si la joxe boppam sëñ Tuubaa ba muy ñëw daa tabe woon di def lu mu yor jox sëñ joxe ba ami bor fekk sëñ Tuubaa ci géej gi mu bindub leetar boole juróomi gas suul ñeenti gas mu ne yàlla dama bëggoon sama bor bii nga fayal ma ko ci ñeenti saxaaba yi booba sëñ baa ngi ci géej gi ay mbokkam la àndal ñëw sànn di siyaare sëñ tubaab ba gis sëñ Tuubaa nañ ma wol ci mbooloo mi ku ñuy wax al Diop almasxari ñu woo ko mu ñëw fekk sëñ Tuubaa fi mu toog mu ne ko bi ma nekkee ci géej gi daa am leetar boobu bindoon yàlla maa koy fayal yonent bi ndax maa ko nekkal ci kaw suuf daal di génn ñeenti takk ne ko bii Ababacar Omar Ousmane Aliin ne ko beneen bi at la sama digganteek Rasulullah <laughs> mu waaw moom moo ngeen di dégg yaa man yarumu sabihan li cheikh ولداقة أنسى لنا كأحمد بامبا ما ولداقة أنسى لنا كأحمد بامبا ما ولداقة أنسى لنا كأحمد ما ولداقة أنسى لنا بامبا بامبا ما ولداقة أنسى لنا مسخري ما ولد أرخته مولمي بامباي بامبا ما ولد أرخته سالنا أحمد بامبا يا من يرى مسابئا لسيخ أحمد بامبا يا من لا يرى مسابئا لسيخ أحمد بامبا فسلم لا إله إلا الله ولا دار خطون سالناك أحمد بما روض المال وسلم لزاوما ولا دار خطون سالناك أحمد بما إن المعارف كل من بارئ بوجوده جميعنا في الأسر أحمد ما بوجوده جميعنا في الأسر يعرف كل البلاد خذوا جودا جميعا في الأرض أحمد بامبا إن المعارف كل البلاد خذوا جودا جميعا في الأرض أحمد بامبا الأولياء الرجوع وسموس وما إلا لا وهم كمثل عيونهم والبار أحمد بما joomul du Bamba wonga misla uyun badaru Ahmadu Bamba bu Yàlla alawliya nu jur wasamsu Ahmadu Bamba ka misla uyun badaru Ahmadu Bamba munu jomuru mudu bamba babaro ahmadu bamba ina suyu khajami ya ahmadu bamba ina suyu khajami khajamian ya ahmadu bamba mudu bamba inal fadaila kullan kullan bi Seex e Ahmadu Bamba jërëjëf jërëjëf Baye Ibra na yàlla fay la yal yàlla may la nga yeggale euh, dafa am menn mbokk mu ñu wax sëñ Mouhamed Seck mi ngi fii ci euh, marché HLM 5 mais dafa am ay addé yu mu bëgg a jox soxna euh, Khady Ndiaye eh, numéro am 591 la 13 96 su ko defee numéro soxna Khady soxna Khady numéro bi ñaata la. 77 565 90 62 565 90 62 mooy numéro Soxna Khady Ndiaye euh, sëñ Moustapha sëñ Mouhamed Seck neen dafa am addiya yu mu bëgg a jox euh, Soxna Khady Ndiaye tubaarkàlla kon numéro baa ngi noonu 77 565 90 62 mat na ko sëkk nag jërëjëf sëñ Mouhamed euh, wax na sax yi muy joxe waaye tubaarkàlla yàlla matali Cheikh Abdourahmane Sy di sunu sëriñ di sunu xarit nekk fële ca Kounoune Eh, nee na ma maa ngi bég lool sëñ Abdou Wade nee na ma maa ngi bég lool tey ñaanal ñëpp ci plateau bi li ma gën a neex ci plateau bi mooy mag ñi ñu ma envoyé léegi nataalam nga xam ne am na juróom-ñaar fukki at yu topp doomam yi nee nañu maanaam ba mu jàppee tele bi ba léegi dafa tawatoon waaye daa jug toog loolu sëñ Tuubaa ko man yàlla na fa jaare yàlla na fa jaare wér bàkki Cheikhul Khadim yàlla na fa suñ borom def mu jaare fa wér waaw ndax li may wax léegi rek li nga yëg ci moo demee noonu Eh, am na benn waaye bu nekk ca Chine xaw ma tudd nee na ma tubaarkàlla bu ngeen bu ngeen bàyyiwul duñ bàyyi waaye yéen itam na leen di sant bu baax. Eh, Baye Cheikh xam naa ne eh, léegi ñu war a def sax dernier tour bi ndax gaañe dañoo war a dem suba Masalik xam ngeen ne layatul xadar gi incha allah suba ca Pape Cheikh defal ndànk rek suba la layatul xadar gi incha allah ca Masalik Touba TV fas ko yéene def direct incha allah sëñ Mbacke Mbodj a ngi toog sëñ Mbacke mi ngi neex rek amul problème. mais Pape moom xam nga du daanu du yëg ay jàng xasaayit ak alxuraan Pape Cheikh dara ko daaneel xanaa woykatu yooyu euh, tubaarkàlla euh, ñu ngi sant bu baax a baax euh, laytul xadar xam ngeen ne suba incha allah jëwri ñu ngi koy defee foofee ca Masalik ak mboolem waa diwaan ba yépp Touba TV fas na ko ñu ne ànd ak yéen en direct nag incha allahu ngeen dund ko ak ñun laytul xadar gi ñu war a defee ca paas njabootu sëñ abibu yépp di ko def ci njiital sañ Ibrahima Mbacke moom sëñ abibu ak sëñ Amor tubaarkàllam sëñ abibu ak sëñ Moustapha sëñ Modou Euh, sëñ Cheikh ak waa kër gi yëpp ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax euh, Pape Cheikh jëli mi daanu bëriwul <laughs> waaye euh, nag numéro Soxna Xadee Ngok sëñ Baye Cheikh sa numéro bu ñu la mën a jote 77 hmm? numéro Baye Cheikh 193 67 93 80 94 mooy numéro Baye Cheikh Baye Cheikh xam naa yi mu ngi dend ak Baye Saliou waaye dama lay bàyyi rek ay kàddu yoo xam ne xëy na bëgg nga koo yëkkati mm, ñu jeexale ko li nga xam ne ni mooy jataay bi ginnaaw bu ñu amee ci yéen mbégte eh, bu baax a baax eh, ci sa teewaay di la ñaanal yàlla taxawu la eh, sàmm la ndax danga bokk ci kéemtaani sëriñ bi sëñ Mbacke Mbodj mais nag sa fans la ndax bi ma koy ne bàyyi sax moo xool lijjanti numéro bi jox ma ko sonn ci lool ndax ku bëgg ndaw yi jànq say la damay gis am na beneen tout tànk bu nekk jëppal ku nekk fii Sicap damay gis muy sonn ci ñoom ci eh, di leen taxaw waaye loolu loolu lañ loolu moo war Touba TV ci production bi eh, dangay ngay bàyyi sëñ Saliou kon ñetti bayit nga door a wax bismillah kon sëñ Saliou bismillah bismillahi rahmani rahim wa wa ala alihi wa wa sallama taslim وقت وجه النبي مهجل البدر يدي وذانني بأهل البدر كرامه أهل البري وبان لي في بار بعد البار فلا بذر غذر في من البر هل النبي رسولي في البر فهد لي ربي ويولي خدري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 الأكرم المطعف بالمنين فاضربي خالق الكونين الأكرم المطعف بالمنين بحرمة ربي ذي الخيرين وحرمة الاثنين ذي البسرين لو خزبي مهنا بالهوني وبرجوعي عاجلا ذا ذون اكتب سلاميك لخير الكون بلال وصاب وخري بوني لجدما يسعد الخمين عني والغارين والغمين سلم جنابي من الغارين وهب لي الأمان في الدارين لي رطة بالمختار أهل المين فاكتب له عني تظني ميني اكتب لمن بعث بالأمين أسيد المولود في الإثنين محمد يا خالق الكونين أذكى ثلاثك مع المنين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 bismillahi rahmani rahimi wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama yallahu bil mustafa sididi yallahu wa bi khalilika ibrahim yallahu wa bi kalimika musa salihan qadrin wa bi zuhaybin wa ismaila yallahu wa bi sulaymana nuhin wa musa wa zakariya ayya huda yallahu haruna yuzam ilyas wa adamada huda wa kifli isa luta yallahu wa yusufin wa bi sahaqin wa khayrihim min anbiya'i wa rusuli laka yallahu wa bil malaikati الرزم ذوتي القديم جبريل ثم بميكائيل يلوه وذاهب النفق إسرافيل خابدار وهاي الخلائق عذرائيل يلوه وبثعابة ثم الأولياء مع العاملين من أخبار الله وبصدق وبباروق ثم بذنور ثم بذباني الله مالك ثم ذا يذافع بغن فدعم دم مولي الله بالقوى قلم مفوض ثم بغذك عند وبكث الله وبقرآن وبدور ثم ما دور جابر والروح يلوه بلغ صلاتي وتسليم علي له ولا الوثابي ولا ذا يلوه وهب لنا علينا ربها فيضا وهب لنا قد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كل فاتوه لسالهين من خيرات يا الله واطلق بنا نعجب رد وقفنا غلب ورل لنا الجن والزيدان يا الله وكمل كل ما ننهو نقله وهب لنا كل ما نختار يا الله ورل لنا كل ذي ذنب وذغرن ويذر كل ذي تقدير يا الله طول لنا عمرنا سعلنا برنا وهب لنا الرضا والتوفيق يا الله ودمر كل اعداء تدر بنا هبر وذل لنا يا الله يا الله وكلنا عاذب من كل لمهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله وآفة هات وقصة مهن زلزلة سدة والفقر يا الله هانة غلة ماذلة غلب وطاقة قدس وجوه يا الله وفتنة والباء والحرق بغرق والبرق مغرق والقد يا الله هر وبرد والنهب بالكربة النغم دلاب نتغرج والخبي الله ومد وقد يدلت الظلل والمرق والقفي ثم القفي الله وغلة ماجنون هلة مرد ثم الجذامين والنغضان يا الله ومن قبيقة الدنيا ثم آخرة ومن فدوك ما الله يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى لنقص لنقص من ثواب قاري الله إني سألتك قلبا قاسا متوجه وعما كثيرا نفقي يا الله وتوبة قبل ما من كل رفع ما تصلح بدين يا الله حكم مهيت لنا مصر ذي غزد ما صرف من وزر عيني يا الله وصر ذيار وصر خغيذي مهجني وذوات ثم يا الله إني جعلتكم في الدارين يا زغدي حزنا عظيما فكم يا الله فلا تكلني إلى نفسي فالككم مجيبني غيظ ما أدوه كي الله واجعل لساني وقلبي ذاكرك كمان عند الممات مع الإيمان يا الله زبد يقيني في قلبي بلا وجل حتى وبلغ قلق يا الله ولجعل مطر هادي ومفراد من قلبي وقرب الداخ يا الله وفلي جسمم حيث فارقني في القبر لا تبلينه الدهر يا الله وكن نذيري أني ذي ما دفنوا جسمي فصرت waaye idan zama yallahu laa tan mu man na may maa xadira wew nii bal fiyan kullama afa yallahu wa najini wa jami almazmina man wa naji walidati amina lahu واغفر لنا ولها واستر معيبنا والتبنا وبها في القول يلو أن تجاوز وإيانا من فمام لنا سواك وأنت البر يلو في برلغ نقر كلها وطرا ومن كروب وقف نجي يلو لا تنطبر ما ليس بخادرة ولا تغير رجاء فيك يلو وأصنا ما مما بالكوثر من اخترته من جميع الخلق يلو من كان يرسل صاح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 يا والبثخام يا غير اليرود من تبثخام أما تنيا قد دخلت بثخام فليب عن كل ذو بثخا يا ما يلين كل تولي ذمخا دك اليقهر كل جان بثخام هن يكفى كل باخي جفخام بسيم من لم يتكفخام بسيم من قرقل دتاوخام ذك ومن قرقل فوق دوخام أويتنا لك به فضيخام بجاهي يا غير ذي ضيخام يا خير به لكل من تبلخام وليب عن كل بليه كوني فتم ذرقام أقربي لكل من تبلغ قل يبغوني فتم ذرقا مثل الذي ذرقته فانطلقا لوجهك الكريم رل أدقى بتته بياض ليل لم يذقى حق الله وأبدا لم يذقى يا منيا لا يذاق دقا هب لي فراخي كل من تبلغ لي كنت في البحر فسد زندقا إذا إذا فليوجه زندقا وجه إلي ما أذين مثقا به warul lii kulla dayn xan baxa lii saqiram musallisan xadam baxa bi an fii mutarajam wasambaxa ilayhi wajjax fil juusi fardaxa wara kulli fandaxa mi xaddaxa daa batu bi xaribi saraxa isma wasayihu fatam saraxa ngadib ngadaban daayiman qatayaxa man diinuhum diinu xa dem ta yaxa ajib bi ma masala laysa mi faxa doxam maslumin xaribin fu nexa ateka ati tawaman wa faxa axdo yaa xayra xadlin wa faxa kawil liman zey fajadi tasaxa xayra salam bi salamin rasaxa muhammadu كنت فيه ببغى ولالي وصحبي وكلي وبغى محمد من قلت فيه ببغى والالي وصحبي وكلي وبغى ميرسي وجاجفتي شكرا لك على خنا بسيخنا ماغيا awzan wa sajani yaa fadilan fa dalluhul xalahu yaa man bihi jërëjëf faaraxani limlaw yaa fadilan fa dalluhul xalahu jërëjëf yaa man bihi jërëjëf faaraxani limlaw tafaqqad jaa qalbi wa kulli hamaytuhu jërëjëf bihi fi lladi ndeysaan ma mastaka mustakil as jërëjëf jërëjëf wa it kunt xan ard madinati da nahyi jërëjëf jërëjëf sëñ Saliou jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy sant jërëjëf jërëjëf jërëjëf almurtadal ah. hmm. afkal mutakkal abqa yaa man bijjeehi fataxta rabqa barki borom Tuubaa jërëjëf jërëjëf sëñ Saliou ñu gërëm ko baax a baax euh, macha allah sëñ Soyebu nee na bu ñu fi màggee. ba ci waxal ay kàddu yu gërëm gaaw ñu daal di dem ci soxna Xadi euh, mën a def dernier tour yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi maa ngi leen di nuyu di baax baax. jërëjëf. di jiital nuyu si ndaxal ba si yàlla fi yàgg loolu te wér. amiin. di nuyu suñ mbokk suñ bàyyi jàngkat yi ak suñu yaay jàngkat yi nekk. ndeysaan. di nuyu sëñ Cheikh mi toog di sama baay jànkat ak sama waay jile ak sëñ soxna Khady Ndiaye sama yaay di nuyu ñëpp képp ku teew ci plateau bi rek di ñaanal képp ku nekk la nga xalaat sa xel yaa xam sëñ defal la ko fajal la ko ak yàlla suñu borom tey ñaanal tamit waa Touba TV fu mu bëgg a àgg ci àdduna mu àgg fa lool di ñaanal tamit. sunu maam Mbackiou Faye di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal tamit mu gën a bëgg sintuwa gën koo mën a liggéeyal ñi ngi ñaan daal bu baax a baax a baax ndax mm, Touba TV nekk nii daw Touba daanaka Sëriñ Mbacke Mbodj du ko du ko kii nii maanaam maanaam li ñu def rek doon nañu jot ci Sëñ Tuubaa barke Sëñ Tuubaa lool mhm. ndax tey jii plateau bi ñu ngi la ciy sant yow am di sant tey képp koy seetaan fii nii suñu plateau bi mhm. ñu ngi lay bu baax a baax mhm. di ñaanal suñu Yuusu Jóob ak euh, Safoor Taala ak Sidi Baara ak sëñ Xaadim Diouf tey lu mu mën rek sëñ Xaadim la waaw ñu koy baax la ndeysaan waaw mm-hmm. di siyaar tamit sin Lamine Fall ma ca ngaay di nekkal maanaam féete kuur mm-hmm. tey nag ña nga sa wàccay bis xës dëgg kuur mm-hmm. sa ngaay mexe ak bis xës dëgg ngaay maanaam li may jëmm ngaay mu sum na xasaayit ñeen fay def di liggéey sin Tuubaa te sin Tuubaa tax ñu def comme ñi ñaan bépp bu murit boo xam si ni ngi safu sin Tuubaa ci liggéey Sëñ Tuubaa ñi ngi ñaan nga teew fa ba cinq juin bi ci des moom korite ba ca ñett fan yàlla yaakaar naa ma nga am sa kóol dëkk si mu laay faal di ko xam ñu ñaan mbokk jullit mbokk taalibe ñu ngi leen di ñaan ñu teew fa ku munta teew tamit nga joxe sa teraanga wala nga joxe loo mën am rek laajuñu dañuy maanaam dañuy dañuy wax rek barki Sëñ Tuubaa kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu léegi li ma bëggoon li ma bëggoon daaneel la ko mooy ban message ngay jox tout tànk yi jàng xasaay tey tout tànk jàng xasaay lan mooy yéene Baye Cheikh ci xasida yi tey lan nga xalaat ah kontaan naa loolu moom man amul ma wax sama sama waajur rek laay kontaan yi ak sama ak sama samay waajur rek laay kontaan ndax tey lii ñoo ma ñoo ma yëkkati ci daara ja mhm. te xale moom daara rek mhm. kontaan naa ci bég naa ci lool su ma bàyyi woon ba léegi mhm. daanaka maaxa xamu maanaam daal mhm. dañuy fo te man ni man xam nga ni maanaam ñu bari naan ci moom daa war a fo yi mhm. waaye naa nekk suñu tubaab rek ba ci kanam mais Baye Cheikh amul lenn dencoo dara ci suuf dara ci suuf di ah waaw doo jokkoo ak moom yenn saa yi <laughs> ah déedéet jokkoowu leen déedéet dajewu leen mit mhm. ah <laughs> atakal la <laughs> yàlla ah mi ngi wax ak gaa yi ba léegi de tarkal la <laughs> eh, borom njaaram <laughs> ak a yéeme demul fenn eh, jërëjëf soxna Xadi jërëjëf Baye Cheikh am na sëñ Mamor Dendey mu sëñ Abib moo jiitee sama groupe soppe ne foofu Touba doomu sëñ Abib bu mu sëñ Mudumbe la nee ku la bëgg la dafa bëgg a jot sa numéro ngir mën a jokkoo ak yow eh, sëñ Mamor Dendey ñu koy ziare baax ak soxna say Sarr Cheikh Khadim ñoom ñëpp tubaarkàlla dégg naa sama dama am doom bi ndaw Cheikh Khadim démb daa jàng ba noppi naan ñoo ngi gërëm nit ñi ñi ngi sant ñëpp jërë ngeen jëf kooku moom dama koy jàpp ci loxo moom yët la ko rek nga tàggatal ma ko ci xes de soxna Xadi noo ngi lay bégg bu baax a baax a baax mhm. Mhm. li ma bëgg xam nag mooy euh, soxna Xadi njàng mi lan lan lan lan lan nga ci xalaatagu na def ndax am na ci xes jotu waaye bi ma jotu gi mooy sëñ fàllu bi euh, sëñ fàllu bi mhm. waaw micro bi yëkkati ko tuuti rek bi nga ci jot a xam waaye am na ñoo ñu ko jiitu yoo xam ne matlabul fawzayni laa ko jàng ñaari yoon sax mhm. ndax man fawzayni day xasida goo xam ni dama bëgg mhm. jàpp naa ne ko sa aajo war a faju moom matlabul fawzayni moo koy faj mhm. beneen bi ci topp ma jàng ko rabbil karim xasida ak sëñ Fàllu bi ci topp ma jàng ko masaalikul jinaan masaalik waaw ci waajtaay magal gi laa ko def tudde ko waajtaay masaalik mbégu murit laa ko laa def kaset yooyu sëñ sëñ sëñ sëñ Amidou mhm. mais yaa ngi xalaat yeneen production ci kanam maa ngi koy xalaat maa ngi koy xalaat bu mhm. baax a mhm. am a jokkoo ak ñu a bari ñu may jot seen message wax dëgg yàlla ñuy feeñal seenu cofeel ci sa jëmm waaw maanaam maa ngi ziyaar ñi may bëggee ndax man li may dund sama xool mooy am noonu ndeysaan wallaay euh, li tax ma di ko waxit mooy man xasaayit laa bëgg ba ci jànkate xasida yi man awma ab jànkat xasaayit laa bëgg ba tax yàlla dogal yàlla yoor ma ci xoli doomu adama yi ngir jëmi sëriñ bi loolu nag dama koy sant Cheikh Ahmadul Xadim di ci gërëm Cheikh Ahmadul Fadal ndax Cheikh Ahmadou Moussa Mbacke Fadilu mm-hmm. ah moo tax ma saf ñëpp moo ma tax a a jàng moo tax ñu bëgg moom moo tax am fulla mm. euh, maa ngi siyaar bu baax nag sama bokki taalibe sama am jàmm yi mm-hmm. euh, fay ma dëkk ca ngaay mm-hmm. maa ngi siyaar képp ku fa nekk ndax ku lim di nga juum te ku lim doo matal mm-hmm. waaye dinaa ci jukki ay jëm rek ma tàmbalee ko ci daayira jannatul firdawsi jëwriñ bi di soxna as say jiite ak soxna na ko yat bokki taalibe ak ñeen ko àndal ñëpp di siyaare bu baax sama taaw baay ndax man samay xarit samay bokk ci jiitu man samay bokk buñ may xool ca kaw lañ may xool dara taxul ku dul borom Tuubaa kon maa ngi ziare sama taaw baay bi ma ko ci jiitale rek yóbbaale na famille bi ndeysaan sëñ mi mii mhm. masaalikul jinaan bi ma lay wax mhm. moom a ma daaj ko ndeysaan sëñ baara ginnaaw mm. waaw parce que maanaam wala fal moom la fal mhm. ma woy ko sëñ fàllu rek ba ci maam aw bu sa baali maali wóolu moom mi moo ko woy ma daaj ko yàlla dogal may siyaare sëñ Abdourahmane Wade mii nag nga xam ni lu yendu ci moom dina fanaan si ci man mm-hmm. lu yendu ci man fanaan ci moom te dara mm-hmm. taxut lu Seexul mm-hmm. Xadiim may ñaan wàdd yàlla nga gudd fan te wér di siyaare samay bokk yëpp ku lim di nga jub di siyaare bu baax sëriñ Mohamed Sam soldaaru sëriñ Bamba li tax ma di ko siyaare day sama wóor na réew doom sant nañu mais nga xam ne maag waajuram ñoo bokk ñaari waajur daal di wóor kon bu ma toogee fii war naa ko nuyu siyaar ko bof maanaam bu déggee sama kàddu mm-hmm. xam ni Fatou ne moo tax mm-hmm. ma di ko bëggee di ko nuyu di ko siyaare li mm-hmm. ñaanal bu baax nag sama mag ju baax tëdd soxna Faama Njaay suñu ami dun Mbàkke soxna Faama yàlla na fi yàgg tëdd amin amin ndax nga xam njaboot boo fekkee ñu jotaay da ngay defee ne man ak moom ay morom lañu ndeysaan li may ñaan Serigne Touba nga jun may dégg leel ju jiitu ju ñuy wax yàlla na ci dem ak jiitu mu yóbbu ko mu siyaar ji baytilaay yàlla ko suñu borom def ci daraje Cheikhul Khadim yàlla na ko suñu borom def siyaar bu baax sëriñ Cheikh Diop xéewal nag mm-hmm. taalib sëñ Fallou docteur mu sëñ Mbàkke Mor ma jigéen mm-hmm. mu bëgg sëñ man mm-hmm. ndax bëgg sëñ Fallou moom bëgg sa bopp la rek ndeysaan fa dem ñu bëgg la wallaay Mbàkke bal bëgg naa loolu barke Cheikhul wallaay maa gën a bëgg Njaay di nga juum wallaay waaye kuy dégg sama kàddu rek ma bëggee ma dëkk ak yow ak ñu ñàkk ma dëkk ak man maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaare di siyaar sama doom ju baax ji di Babacar Ndiaye mhm. këram laa wàcc léegi ndeysaan ah maanaam moom sama moom duma ci wax mhm. ndax sëñ Tuubaa ko fondement moo ko yor ba nëgëni mhm. ndax ku luy bëgg ba yàgg mu wàcc la goro ne la na lay defal lépp kooka amatul ko ci yow te seen jëmmi sëñ Tuubaa ji rek ndax ci bu nuy am rek sëñ Tuubaa mënu ko cërale kon sëñ Amidoune Mbacke man damaa sant wallaay bu baax a baax a baax ndax man sëñ Tuubaa ma defal lépp lu mu doon lu mu doon keneen kenn ko defal la sëñ bi lay balal bopp nga defal waaye man kenn fekkul sëñ bi ci man la sëñ Tuubaa ma defal lépp si ñaami dund dëgg la dëgg la jaay so kontaan naa lool barke sëñ Tuubaa euh, soxna Jaal waxal ma dara am na bismillaahi tay ma way alaaji seexi mooy baayu sëñ Modou Bousso ak Alaaji Baara Fadilu bismillah man daal tey way sëñ Fallu baayu ndee Alaaji Seexi Fallu laay Bousso ku sopp Serigne Fallou Baye Mbène ndeysaan ak Alaaji Baara Fadilu samal ma saa cëriñër Serigne Fallou Baye Mbène namal ma saa xel mi la ju kuy murid jógal taxaw màggal Sidi Fallou Baye Mbène ma dellu way lay bay ndeysaan Baye Murtala nga neelu yàlla fadilu yoo di nga sabaroome ay siñ fallu baay mbee amoo ci bii waay aduna moroom aduna moroom bis peñ ci yow doo naa la seexi fadilu yàlla di buur tamay boroom moo sañ ba def lii nga doon alaaji Fallu baay mbeen la boppam yaa di waay yaa di waay yaa di waay yaa di waay yaa di waay yaa di waay yam seexu naa seex fat jiloo sëñ Fallu Mbakke alaaji Fallu baayu meen baayu mu talaaju maa baayu may mu naa baayu sëriñ baara baayu seex moodu bu sa jeng yaay baayu meen yow yaay yow yaay yaay baayu meen yaayam na jeex na ko murid jógal taxaw magal Sidi Fallu baayu mbeen bay laaji takko ya di baayu Maymuna baayu Seex Modu Buso Jeng yaay baayu mbeen yow yaay yow yaay yaay baayu mbeen ba noppi jaay nga Sëñ Fallu jaay nga fallu joo fallu alaaji fallu baayu meen sëñ fallu alaaji fallu baayu meen sëñ fallu yaay ibnu seexuna alxadim ba noppi jaay jaay nga sa njuree fallu jaay nga sa njuree ah, jënde ko ak ndeysaan waaw yow Mbàkke yaa mat li nga doon alaaji falu baayu meen yaa mat li nga doon yow yaa yow yaa yaa yaa yaa mat li nga doon yow yaa yow yaa yow yaa yow yaa yow yaa mat li nga doon yaa fa sa malal baay bani guno waaw yow mas amuloo ci morom baayu meen doo masu nu faddilu ya sa dikak Seex Ibra Faal Amadu Faal jaay mi la ñëbi ñëbi nga ci ngaay isa jëy Fatim Penda bu rëy yeey ne ñu fu ñoo bu damel damel samba yaaya faal coow li coow faal bu ma amoon bu ma amoon guddi gu yaatu ba nga xam ne moom damay sant rek waaye laylatul xadar gi gaañ dañoo war di ak matériel bi waaye man maa trouvé jaal eh, si yëpp daal dama ko trouvé démb dama nekk ci xam nga man su ma invité nii damay topp ay parcours am damaa topp seen vidéo yëpp di ko suivre waaye xatu moom émission laa doon def démb man ci guddi man sama jëm bopp rek soxna Bintu Jaxate ku bëgg suñ fàllu lool nee na neel soxna dégg naa ci moom amel naa ko teraanga euh, sëñ bu maa ngi lay gërëm yow moom fi nga toog daan ko yàgg yow tey moom <laughs> murit nga maa ngi lay sant di la gërëm sëñ soñ bu bàyyi la nga joxe kàddu ngay tàggatoo jërëjëf mm-hmm. suñu ko seetlu naa. ndeysaan. suñu xel taxaw la. amiin. yàlla guddal sa fan. amiin yàlla wéral la. Euh, gone lu ko fakk daa yomb. lu ko këf dafa yomb. kon ñii boo dee taxaw boo dee taxaw ci dara rek ngir di leen encouragé ci li ñu nekk. ndax nag. foo amee soppe rek am fay noonu léeg-léeg nga dégg sax ñu naan gone yi dañuy mag mag loo ko defee kon ku taxaw rek guy jàng xasida boo ko ak boo ko gën murit nga ak sëñ Tuubaa sëñ soo na xa war nañ ko jàppale bu baax xam nga lu def loo mënut a faj da nga cay maandu nit ki loo mënut a faj day fexe ba maandu ca xam nga maandu gi mooy léeg-léeg nga dégg ci dingatkat yi ñuy dingat naan jigéen doom leen la war ci yëkkati ci kaw te ñii ñoom Xadi Njaay ñi bu ñu yëkkatiwul ci kaw ñu wéet déglu ñoom fiyat wéet déglu ñoom Kiné Lam wéet déglu ñoom xaar mbay ma jaaga ah kon ñii bu nu dee yëkkatil ndax gis xol mënut a ñàkk noos da yëngu jëm ci lee rek mbaa mu yëngu jëm ci lee waaye benn xol mënut toog te baj baji wut wuti dara loolu loolu loolu loolu boo doon espéré sax ci way da xam ne benn xol mënut toog te te baj bay duñ dara kon kii bu nu réykal bu nu réykatal xasida yi waay waay waay ki waay ku mënta jox dara wala nga fekk këram jox ko oto mbaa nga fekk këram jox ko addiya ba ko ngir jëm sëñ Tuubaa bi dana ko dana ko am dana barke sëñ Bamba dana ko am tubaarkal wallaahi al-aziim <laughs> man sama xol set na ci moom lool man man man man man dafa loo xam ne suñu na ma ko bind mooy néew ma toll laa toll dama dama iñaanut loolu la ma yàlla defal te it sant naa yàlla baax ndax dem naa ba xam ne njàng fii ci suñu borom bëgg ma am ci rek foofu laa ci yem du ci du lu doon tarafatin mhm. kon teel maa yeewu moo tax ma teel noppal sama ci lépp dégg nga man damaa rek dimbali su wax nga ko léegi man yàlla dafa def bi nu may booba sept ans la am ñu doo bëgg moo way def musique ñu indi un million teg ci taabal ji bi ñuy yox ma ko mën na leen seddoo si joxe ñu bàyyi ba ma am dix-huit ans ñu indi cinq millions ci cinq millions booba léegi bari na léegi sama waaye moom cinq millions côté mhm. xam ne téye nga cinq ñu teg ko ci table ji ma ne leen ba tey seddoo naa sëñ Touba. ndeysaan dégg nga kon man reg naa te xaalis yow yow di dañ am. dëgg la yéefar yi dañ koy am. ñooñu ko pule fépp kon du dara. Mhm. kon li li li fexe ba am solo mooy fexe ba am sëñ Touba. Mhm. boo xasee am sëñ ñàkkoo dara. Mhm. man nag sëñ bi damaa gënal xaalis. donte xëy na loo ciy tedde baax na lool. ndax adduna lañ ne. te bu ñu wootee di nga def. waaye wallaahi laa bu la sëñ bi jàppee. yooyu yëpp nga am. dara jomb la fexe ba suñu jàpp daal mooy mhm, la kon. dëgg la man de maa ngi ñaan sëñ Tuubaa mu defal la jàmm. defal la tawféex. Mhm. soxna Xadi mhm. man sama xol sedd la man bég naa lool ci yow. te yàlla seere ne. Euh, bu woon bépp mag fii laal maa la koy jox. wallaay xam naa ko wallaay yow yow mu rënd la yàlla def. numéro bu ñu la mën a jotee seen champs waaw léegi nag euh, euh, numéro bi mooy. 77. 646. 55. 87. 77 646. 55 87 ah Abdou Wade. jërëjëf sama xol sedd na. yow it nii nga. Euh, euh, siifara jëwriñ ji di ko jàppale. murid la te yàlla rek tax. yàlla yàlla guddal sa fan. yàlla yàlla may la wér. yàlla yàlla defal la taw feex. kii kat nga jàpp man. moo tax yow fu mu ma jox la wàccuwaay. barke Cheikh Rafal. wallaay fu mu rek ma jox la wàccuwaay. wallaay ndax ndax mën naa fekk nga ne ci leneen. wallaay te boo dégguloon nit ñi ba na gën a yaa ngi ci leneen. lu bokkut ak li nga ne waaw. damay sant sama borom kër. wallaay ndeysaan. Euh, lakk mburu. Mm. dina tudd te moom bu yaatal woon dina xat ci man ndax dama daan ñaan sëñ Tuubaa ku nu xëy may ma ko boo ma naree gàllankoor yàlla boo yendoo sama buum ku nu gontu may ma ko boo mën boo mën a ree gàllankoor yàlla boo fanaanoo sama buum. ndeysaan yàlla dafa dimbali ma nag koo xam ne murit la. Mm-hmm. lii nii daf ko fekk mu xat waaye kon da ciy ànd nit ku baax la mm-hmm. mu xaddimaat bi ngeen di dégg ma di ko jàng mm-hmm. moom moo koy jottali kon xam nga ne sëñ bi waa far na ma loolu sëñ bi du maa ngi lay jéglu bu baax a baax a baax wóor na Cheikhul Khadim ñaar fukki fani koor gi mm-hmm. Mamadou Ñang mi mu ngi ko defee gàtteeñ di ko defal doomi sëñ Modou Abdoulaye Fall soxna Bousso ci Touba gàtteeñ man di sant bu baax a baax a baax samay samay bokk yi ma bokkal sama borom kër ndax ñoom jàppewun ma wujj danoo ànd ak man di liggéey sëriñ bi mhm. maa ngi sant waa Mboro mhm. bu baax a baax a baax di sant maanaam sëñ soxna Mbaye Mbaye mhm. ak sëñ Bàcc Seck doomam ak sëñ Ablaye ak maanaam ñi ku nekk Mboro rek maa ngi lay nuyu ku nekk biir jogo maa ngi lay maa ngi siyaare bu baax sëriñ Mbaye jaañ ci mbuur di kenn ci man jox maanaam bàyyi ma xel bàyyee ma xel noo xam ne ci njabootam jëm sëriñ bi xasida yi rek a tax sëñ am dama dama damay nitu ñëpp te bëgguma kenn mer waroon seexul xadim loolu rek moom moo ci nekk wallaay njaay wallaay wallaay sëñ sooy bu aw jërëjëf waaw mhm. xam naa daal bëgg na dëgg la euh, njàng ma ne des na mhm. seex euh, xamu nuñ ko waxee seex Fall la xaw ma mhm. Pape Seex la xaw ma Pape Seex dana ma jéggal ndax man damaa bëgg sëñ Tuubaa sëñ Blaat Mbàkkeem sëñ sooy mooy sama sëriñ waaye sëriñ Seex la bëgg man dëgg la déet yow bu baa Ibra noppee nii waaw yaa yaa koy tëj kon jeex na léegi nag léegi nag euh, li ma bëgg ñëpp daf ko may Euh, nu xam daal yow mi nit ku baax nga. yow suñu son yaa gën waaw yow. man boo gisee ba ma woo ma sawar ci ñëw sawar cee ñëw. man damaa bëggut kenn ku nekkal keneen feneen di ma jàppale. ku dul taalib wax publiquement maa ko man sëñ Tuubaa la bëgg. man keneen ku ne feneen bu mu jàpp saa mbir man sëñ Tuubaa rek. man daal ku nekkal sëñ Tuubaa. loo ma sëf nangu naa. na nga xam ne mboolem télé yi ak yëpp yaa fay cent ménatiseur loolu moom na nga ko xam bu baax a baax maa ngi ñaan sëñ Touba ndax xam naa ne soo ko defut keneen dana ko def te keneen ku ko def boo lëggee fa ngay toog di ko wax du ko fekke la waaye boo bu dee taal bi sëñ Tuubaa ko def moom. dëgg la lu mu wax baax la. dëgg la waaw loolu loolu la maa ngi maa ngi maa maa ngi siyaar kuréelu euh, ànd ànd groupe sama soppe. sama sama groupe soppe yi. jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di siyaar ànd ànd liggéeyal Serigne Touba. ànd jëf ngir Serigne Touba. jërëjëf kuréel la sëñ Seydou mii mooy njiit li. maa ngi koy siyaar moom gis nga ko moom moo la jot rek moom it am yéene ci man wallaay wallaay wallaay moom moo ma jot wallaay waaw defal ko defal ko tawfeex baax bég naa daal wallaay ndeysaan maa ngi koy siyaar kay ñoo ngi lay gërëm waxtu wi rek ak ak gaayee kii yi waaye bëggoon naa moom la bu du woon laytul xadar gi moom gaa ñi mën nañ fee nekk ba cinq heures du am jafe-jafe waaye waaye waaye liggéey yi moo demee noonu rek ndax it euh, war noo man déglu ma la Pape Cheikh man euh, sa bàyyi laa sama invité bi euh, tubaarkàlla maa ngi koy sant bu baax maa ngi leen sant dama bëgg gis nga ñu mel ni sëñ Soxna Xadi Njaay bàyyi Cheikh bàyyi rëy sëñ bi nga jékki-jékki rek jël sa téléphone rek ni ko addi ju baree ngoog addi sëñ Tuubaa la bu la soxlaa sax xam gis nga sëñ Touba day verser ci comptam mu di la fay verser ci comptu sëñ Touba lu am solo la mooy koo xam daa bay lépp ci topp sëñ Touba nga ne nga wutu ko ci sëriñ bi sëñ bi loolu lu am solo la maa ngi ñaan jëf yu baax yooyu dañ koy def bu baax lu am solo la euh, Baye Ibrahima maa ngi lay gërëm jërëjëf sëñ am yow ñun ñoo war a gërëm ndax euh, yow jànkatu xasaay di rek la ñor ak ñiy liggéeyal sëriñ Touba waaye da ngaa bàyyi ñëpp féete ndaw ñi di leen jàppale di leen safo kon ñoo ngi lay ñaanal bu baax ñoo ngi lay ñaanal bu baax suñu borom yokku ñu ku baax nga barki démb rek lañu defal teraanga ju rëy ci bisam bi mu doon taxaw nit ku baax la te bëgg ko wax kon yàlla na yàlla jàppale moom ma dajaa mer ndax ñëwu ca waaye nag sëñ am jóge Touba su paan ëpp naa def de sëñ Baye Sam hmm. Baye Sam di nit ku baax hmm. Baye Sam Gueye hmm. nee na yéen waru leen am benn gàllankoor jël leen oto bi ngeen ci ñëw muy BM bii ñu gaare te loolu dafa rëy lool. dëgg la dafa sax ci xool te mënoon nañoo am gàllankoor ba ñu ñëw nag ndax danoo guddee ndax Touba lam dogoo kon loolu bu amee mu jël alalam jox ñu ko ñu ñu ñëw kon kooku bëgg na fi kon ñoo koy ñaanal yàlla na suñu borom yàggal taxawaay. amiin te yokk ay teraangaam nag. sëñ Mouhamadou Samb mii seexu na. Euh, soxna xaritu tudd léegi danoo defal teraanga ju rëy soldaar soldaar sëñ Tuubaa sama ngénteel taaw dafa dégg ne Ousmane Mbaye laa ko tudde mhm. waaw waxuma Dakar la ne xaw ma fu mu nekk mhm. sëñ Ousmane ne ko ah bàyyi ba sàmm de tout tànk bi man la ko tuddee mu taal otoom jógee fa mu nekk ñëw ba Touba sama kër yëkkati àddiya yu bëri jox ma ko. dëgg la te dara warul ko Touba ak sëñ Ousmane ma ma tuddee tout tànk ba di nit ku baax di xaritam mm-hmm. kon yàlla na yàlla yokk tarangam di ñaanal nag ñi nuy jàppale mm-hmm. soxna yaa may ka mm-hmm. moom sëñ jëm sëñ fàllu di nit ku baax di ku nu jàppale di ku nu fonk sëñ am ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàgg taxawaayam di siyaare nag sunu mbokki taalibe yëpp ci jiital sëriñ Sidi Mbàkke mi nga xam ne mosuma si la ci kër sëñ Tuuba ñoo ngi koy ñaanal sunu borom guddalaw fanam ak waa daayira bi yëpp waa daayira bi yëpp ay daa maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax a baax di ñaanal suñu way ñaari way jur ndax lii lépp ñoom la ñoo leen bu baax suñu borom taxaw leen ndakaaru gi buñ fiy dugg dañuy am problème ndax dañ fee bëri mbokk mbokk yi nekk buñu sañoon bu buñ ñëwee ci ñoom la ñuy dal mhm. moo fi ñëwee rek dañuy am jafe-jafe waaye ñoo ngi ñoo ngi ñaanal ñëpp fu fi waay nekk sunu nijaay ma penda mhm. Serigne Moussa mbay sama tante nday ko mboolem mbokk fu fi waay nekk samay goro fii la ndëkk maa ngi siyaare ñëpp di dee ñaanal waaye sa ñaanal mm. kuréel gii may àndal maa ngi leen di siyaar te di leen sama xarit bi ak gaa yu baax yi jiital nag sama milaasër yi nga xam ne ñoo may jàppale mm-hmm. muy Cheikh Abdoulahat Fay mii mm-hmm. kilifa gu mag la dëgg la ndax sa ménagère bi. mais waaye kilifa gu mag la. ndax entreprise bu mag la jiite Touba Touba Njenne. wallaay wallaay moog Serigne Badofal. loolu lépp dina jàppale ci xasida yi ngir jëmmi sëñ Touba. Mm-hmm, mm-hmm. leen di ñaanal suñu borom yokk leen. amiin amiin seen seen seen waar woowu yàlla na ko suñu borom jëmale kanam. amiin amiin ci barke Xaadimu Rasuul Seen. moom it la di nit baax. wallaay di ko ñaanal suñu borom guddalaaw fanam. sëñ Fallou Mbaye imam mm-hmm. sama xarit la mboolem ku ma tuddul nag. xamal ni sama xol tudd na la dëgg la ndax bi bi dafa xat. tubaarkàlla te mënuñoo tudd jëpp waaye sama soxna nag. amit ah, ma dem te siyaaruma sama soxna de. kon day garaaw. Ah, sama xarit la loolu day garaaw de. sama sama xarit la te ëpp soxna si na nga toog ko bàyyi bëri nit sëñ Tuubaa da ko liggéey loo muy bu koy muñ di nit ku baax ku na ko ñaanal suñu borom yokk wallaay Cheikh Abdou Faye mboolem soppe yi fu waay nekk doo ngi leen di siyaare wallaay wallaay jërë jëf yow ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal sëñ Tuubaa may la nga eggale waa daayira Nooru Daare nii bu kër kàbb ñoom it dañuy taxawee laytul xadar gi ndeysaan ren ñu jox ma ci cër bu yaatoo yaatu maa ngi leen di sant bu baax sëñ Cheikh Sarr bokk ci groupe kenn du sëriñ bi bi ma invité Soxna Xadi rek la ne ma Soxna Xadi laa bëggoon ñëw ndax dinaa mën a ñëw teerlu jotaay bi ma ne ko ñëwal ñu ngi lay ziare baax sëñ Cheikh di la sant kenn du sëriñ bi kenn nelawul maa ngi jot message yu baree baree eh, maa ngi lay gërëm sañ sëñ Touba taxawu la may la yow ku baax nga sëñ Abdou mii nit ku baax la ma nitub àjjana la barki sëñ Touba yàlla na yàlla taxaw sëñ Alaaji Sarr ñoo ngi lay gërëm sëñ Abdou yow moo ma sant <laughs> déedéet naa def ëpp ëpp naa rek wallaay yow fii soo fi nekkoon da ngay am problème ndax doo xam koo war a invité ak cortège <laughs> oh, moom si yëpp bi moom loo mën a wax yow waxal sañ Touba rek boo nee sëñ Touba pour moom <laughs> ah waaw numéro Baye Ibra Baye Ibra waaw waaw ndeysaan Baye Ibra sa numéro bu ñu la mën la mën a jotee sa numéro bu ñu la mën a jote ah waaw sama numéro bi ma mën a jotee 77 la waaw 77 503. 503. 59 96 96. 96 503 59 96. mooy numéro euh, Baye Ibra Samb moom ñu di ko sant bu baax di ko gërëm ñi ngi gërëm sunu yaay musli kenn fii ci marché HLM. day sant euh, yaram ba sax kii waaye tubaarkàlla ma nga jàkkaarloo télé bi moom it euh, di seetaan ak sunu avocat bay Baye Soxna Adama Ndiaye. ñu ngi leen sant baax di leen gërëm ak soxna ant Samb ma nga ca Texas nee na ma ne soxna Xadi Njaay amel naa ko àddee ndax moom dafa bëgg sëñ Fallu ma nga ca Amérique ca Texas ñu ngi koy sant baax di ko gërëm soxna Jóob euh, ñu ngi koy gërëm ci Floride moo yaayam tubaarkàlla euh, sëñ Góora Juum xasaayit ma maa gis maa ngi gis kiyam euh, message am léegi baarakallah ak waa groupe kenn du sëriñ bi ak soppe ne tubaat sëñ Mamor Mbàkke Dendé jiite leen soxna maam Ami Mbàkke moom sëñ Abdou Lahad Baara mi ngi topp jotaay moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal Euh, soxna si daal dama bëgg yow moom mm, sama ñii kenn ku ci nekk nga jël numéroom waaw yow xam nga ni muy demee euh, tubaarkàlla nga taxawu leen ci sa baax euh, ñi ngi sa yaar soxna Adama mbàkkee ñoom ñëpp mam mbéy loo tubaarkàlla soxna nogay ña ngi suñu sotte ba mu koy sant ko gërëm di gërëmaat bu baax ñi nekkoon ci sa plateau bi ak ñi doon seetaan ak ñi nekkoon ci biir liggéey bi sëñ Atumaan sëñ Abdou Karim maa ngi koy gërëm sëñ Pape Cheikh Bey laa jàkkaarloon yëpp naa ko lool ni ma yebe moom laa ko yebe waaye tubaarkàlla jàmbaar la bu reeree rek amul problème moom bu xiifee lay am problème mais bu reeree amul problème euh, sëñ Ibrahima Faye euh, tubaarkàlla maa ngi koy nuyu euh, tey moom sëñ Ibrahima daa toog di jël plan di duur di kii maa ngi ñaan ñu ñaanal ko léegi bi sëñ bi soxna Xadi di jàng mi ngi yëg ndeysaan lu lu xóot sax xam nga kuréel kat la eh, kuréel kat yi xam nga dañoo metti bala ngaa jàng lu leen yëngal fii seen bopp yi tubaarkàlla di gërëm sëñ Mbàkke Mbóoj chef production mention spéciale ci taxawaayam ci télévision bi ba koor gi tàmbale ba léegi moo ko sëñ Jibril Ndaw Euh, sëñ Dame Guèye euh, di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex ak taysiir sëñ Abdou Diouf président gis nañ taxawaay bu am solo bi soxna Mantoulaye euh, taxawaay bi am na solo lool tubaarkàlla ndey njaay xaw ma fu ci àddina moom lu dul reer bàyyiwu ko àll ñu ngi gërëm bu baax a baax sunu sëfoor bi ñuy yóbbu moom tamit tubaarkàlla nga xam ne équipe yëpp moo leen di yóbbu Pape Cheikh waay euh, bi maa ngi koy ziar euh, sama sama waa ji moom it euh, tubaarkàlla jàmbaar la lool waaye tey Pape Cheikh moom daa def liggéey bu am solo tey la Atoumane mës def liggéey boo xam ne ni stabilité bi amul problème ñu ngi koy gërëm bu waax di gërëm soxna maam Diarra commercial soxna maam Marème Euh, ak mboolem ñi nga ngi topp Touba TV di wax suba ak jàmm Touba TV dana leen defal en direct euh, laytul xadar gi incha allah euh, ñu ne ñu ngi ko fas yéene defee foofee ca paas ca wetu Mbamba garage di nuyu bu baax a baax waa dëkk ba yëpp ñiital sëñ Ibra ak mboolem ku fa nekk soxna Xadi soxna Kumba ngi lay yónnee ay nuyoo di bég loolu mook soxna mook sëñ Bay Joob xaayira di gërëm ñëpp di leen ñaanal ak mbokk yi fi ne yëpp buñu sañoon tudd leen waa xaayira gépp soxna Xadi ne ngi leen sant sëñ Mamu Cuun maa ngi koy sant baax di ko gërëm tour kenn du sëriñ bi di ko teg ci loxoom ndax moom lu ne laa koy teg waaye lu ma ko teg rek tubaar euh, tubaarkàlla dafa xam ni sëñ Tuubaa moo boole dina liggéeyloo di ko ñaan yàlla defal ko tawfiq ak taysiir euh, di gërëm mboolem ñuy jàkkaarloo yëpp bëggoon nañ leen tudd Baye Cheikh maa ngi lay gërëm sëñ Chouaïbou euh, Baye Ibra nañ leen di leen wax ne promobile may ne leen ay puces bu bala ngeen a dem kenn ku ci nekk mën a jël numéro téléphone bi ngeen di jot foofa ngir mën a jot ci puces yi ak seen i carte d'identité ñu crédit incha allah sans dépendre ci numéro bi ngeen ko bëggee Pëns moo leen jox boisson bi ak CO ndox mi tàngal bége ak la fraise ñoom tamit ak kafe mooy sunu kafe ñoom it wakala jàpp ci liggéey bu baax a baax ñu ngi leen di gërëm eh, di leen sant di leen wax lu jiw a jeexul jugu fa ma bàyyi seen champs ba rek mu tëjee ko Sëñ Saaliu ñu boole koog générique bi naan leen lay leen maxal baraka salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf jërëjëf lin xaadatil wujur wal masaaliw bi tey wal من مليك مالك ملك ذي خلق وبخطي فاخر الخلف واليت ربا وليا لا شريك له وفي حبني الأقران والسلف أبقى بي الله ذكرا قادري بننا برفع ذكري فودت كلي الحيف لإراد رب عدا رودا يقود رضا وليس يقصدني في شيء الجيف لازم بعافية ليس بعافية وليس ينحو جنابي ضيق أو تلف أعطاني الله سرا وجعل أما إلى سوى وتمعو نحو يظلفون يعطوا الثلاثة فيما لا شريك له بعد الثلاثين حتى قادر انقلبوا عاد الكريم الذي ناجيته زمنا من أزمن زمنا لي فمهد كلفه دريت ربي ربا لا نزير له وقد لي كن في الخيل يرتعفوا ربعت ربعتي من لا يفارقني إلى الجنان فقال الخوف والضعف ما السبت بذكر ذكر العزاخد من نعم الكتاب الذي ازدانت به ثوره أني مات معان قابتها ثمنا واستقبلت من الوهاب والتوفور لله يمضي وزمري سرمدا وله كليتي وبي تعلو لي الغرف وجاد كل له وجود منسكب نحوي ومن فيدي مبوب يعترف مصليا مع سلام للجنان به على نبي والهدى لخير انصرفوا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 باق ولي بيصان مددا نوى لغيري جنة الحسن من بيده سان بميزاني نحوي مع العراض يقضياني ولقه ردان بالمشاري علمني الله تعالى زاغ لغيري ظلمة وظلما بين لي تبين من لا يخاف علي شيء من عذاب الأخبار إن كتابتي لا يهدون مما كثير من عبادات تعبدون دلني الله على محمد وغادني أحمد ما بالصمد قدمي محمد الإلهي وخادم الله بالبلاي لمن غني وقت الجهل خوف غير إلهي ونعم السيف يعصمني الله من الناس ومن مكر وورد ولي فوزي ضمن ساق المكارم غير جسدي باقنا ما كليتي المسلمين لم يلغني حرام أو مكروه وبان بالتعذيب والتكذيب وفاني الله الذين آمين أنور قابي وبمذهبي علمني الله تعالى ما عجزوا أن أصيبه ولي الوعد نجزوا لم يلوزا في سوى ما يعتمى من قاد لي ما صونه وقد ختما يسوس بما في الدارين وزالني عن جانب العين عدم ما كان العين باليا من ما يودي ان اكون عانيا معاد وجل زال الله بقدر لا إله إلا هو ساغ العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لم ينيب لي فقد إلا أردوا مذكور جلا أردوا بغير نهو الباقي ذو الأرض نسبي واتباعي إبليس ولا ينور نبي سرمدا لحبي الله حبي أحمدا نهوي مع العروج أتبع الحسن إلى سواي فائزا بمرتزا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل العالي عظيما